CCA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen di may seen émission waar wi àllarba bii bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Makhtar Sall dina dalal Mor Diouf du secteur général travailleur agricole dina feggoo ak Amadou Kare du secteur général travailleur élevage ak Oumar Dramé secrétaire administratif syndicat du travail muy inter intersyndical bi nga xam ne jàpp nañu ne dañoo war a banque seeni baaraam bañ a liggéey ndax indemnité yi nga xam ne siife woon nañu ko xamuñu ëllëgam fan lay mujjee ministre ba nga xam ne ci boppam sax moom la ñu ci waxtaanaloon tey jii ñuy wax ak yéen soppi nañu ko ba nommé ko ca yeneen ni poste muy lu doy waar jëm nag yëngu-yëngu yi nga xam ne mën naa yëngal secteur agricole élevage pêche ak yeneen yi nga xam ne ñoo aju ci liggéey bi tey jii lay doon ci àllarba ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ak maxtar Sall bu ko kenn wutee di ngeen ci mën bokk su ngeen wootee ci 88 628 98 98 Sud FM ngeen ciy lëkkaloo mu ànd ci ak LBA la banque agricole di banque bi xarañ te ubbeeku ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen di may àllarba bu jot bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. salaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñuy déglu rawatina auditeur waar yi ñuy gërëm également euh, LBA la banque agricole bi nga xam ne moom mooy banque monde rural waaye itam li nga xam ni ay liggéey classique yi banque yi def yëpp kooku ba tey itam Euh, def ko ak moo di ko def euh, du ñu jógee foofu nag euh, accès si suñu gan yi nga xam ni teew naa si taabul yi tey ji nuy waxtaan waxtaan boo xam du am solo la war doon parce que intersyndical moom moo fi nekk intersyndical boo xam dafa lëkkale ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu si wàllu mbay bi ak ñi yëngu si wàllu càmm gi ak tam nga xam ne ñoo ngi yëngu si wàllu napp gi loolu yëpp nag duñ ko tëkkee nekk li nga xam ne moom la ñuy secteur primaire secteur primaire nag nekk loo xam ne lu am solo trop trop si li nga xam ni moom mooy Sénégal li nga xam ni également moom mooy budget Sénégal parce que du fekkee da nga secteur primaire yi mu ëmb dund gee nga sekk yëpp ngi si donc loolu moom def naa amul loo xam ni moo ko war gën am solo waaye nag secteur primaire bi ñoom nag fi mu nekk nag ñoom dañu mer parce que daal luy tax nu mer euh, tey intersyndical bi dañ leen ko wax ba pare ñu seet nag mer boobu nan la mën jur si secteur bu nekk te loolu nga xam ne moom la mën jur ban jeexital la war am euh, si askan bi. ak euh, ñoom itam daa ngeen dégg seen ñaxtu par rapport ak ministre bi nga xam ni euh, dans le temps moo nekkoon euh, si économie léegi nu jëlee ko fa nekk directeur de cabinet bu président de la république yooyu nekk na yëpp yoo xam ni daanu ko waxtaanee ni fàttali itam mbokk auditeurs du fekkee ni bëgg nañ bokk si waxtaan wi mën am na lu ñu bëgg laajte wala contribution yu ñu bëgg def mën nañ woote si 88 628 98 98 88 628 98. 98 mooy fi nga xam ne fi la ñuy jaar pour mën bokk ci émission bi du loolu weesoo nag nu tàmbali bokk waxtaan bi bien sûr secteur euh, agricole euh, ki nga xam ni moom moo fa nekk mooy Mor Diouf. salaamaaleykum. voilà ñoo ngi lay nuy Mor di la bàyyi nga nuyu teggaa Sud FM yi ak mbokki auditeurs yi. maa ngi lay fay di la sant ci invitation bi. di ko rafetlu di nuyu. sama camarade Dramé muy le euh, comment dirais-je secrétaire administratif bu intersyndical lu pes di nuyu sama doyen Carré mm-hmm. mu nekk secretaire général bu élevage di nuyu bépp euh, auditeur ak auditrice bu Sud FM di kontaan ci dalal bi ñu di nuyu également bépp travail bu nekk agriculture ak ku nekk pêche ak ku nekk élevage di féliciter aussi la LBA bi nga xamante ne day accompagner émission bi ñu koy referlu di wax ni suñu travail yu bëri foofu lañ domicilier seen salaire. voilà defe naa kook ñoom daan kontaan trop trop ñeneen ñi tam nañu gaawantu ndax foofu moom euh, leen rek la ak loo mënti tool rek doo accès ñoom daan lu gunge jox la conseil ba àgg foo xam ni sa xëy na yaakaaroo ko woon Amadou Kare yow yaa nekk secrétaire général bu syndicat bu élevage ñu lay bàyyi également itam nga ñun teg mbokk auditeurs yeeg gaz yu defee. jërëjëf Makhtar. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci euh, invitation bi mhm. ndax euh, kontaan nañ ci trop ndax euh, situation ak contexte bi ñu nekk nii ngeen invité ñu loolu dinañ ci kontaan trop bi ñu invité nuyoo waa Sud FM ñu ngi maa ngi nuyu aussi mes camarades moor Diouf bu agriculture ak Omar Dramé bu pêche di wax ni émission bi émission bu am solo la ndax déjà en 2006 bi ngeen nekk fële mosoon naa fi ñëw ci benn émission ah oui d'accord. wax nga dëgg waaye émission bi existé na depuis ay 2004 c'est vrai avec euh, péril acridien bi ba mu amee. ba tey nag mooy continuer bon pour yéen la voilà. surtout le secteur primaire. bon ñu dellu si si Oumar Dramé yow mi nga xam ni Oumar yow yaay secrétaire administratif bu syndicat bu jublu si wàllu pêche bi pêche bi moom def naa lu am solo la est-ce que sax pêche bi du première euh, secteur bi nga xam ni moom moo gën contribuer si budget Sénégal def naa foofu la war nekk de waaye lu bàyyante la nga nuyonteeg mbokk auditeurs yi ak gaz. salaamaaleykum euh, ñoo ngi leen di nuyu yow tam. ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la di la remercier si invitation bi. Mm-hmm. donc di nuyu seen euh, auditrice ak auditeurs yëpp. di nuyu sama camarades yi donc euh, euh, doyen Carré ak moor Diouf. donc di wax ne vraiment rajo bi rajo boo xam ne la donc euh, rajo bu am solo la Sénégal implanté partout à travers le pays mu am benn auditeur kii mu am benn kii nu ñu koy waxatee sax déglu boo xam ne. wax dëgg fa mhm. yàlla. écoute bi am na mhm. solo trop. donc ñu fas yéene véritablement wax donc si wàllu secteur primaire bi. je pense que tey euh, sénégalais yi dinañ xam euh, euh, jafe-jafe yu ñu nekk ak fan yi yëpp ñaxtu yu xam ne donc déclenché na ko di ñaan yàlla rek yàlla may ñu donc nu ñu mun a commencé émission bi si bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko si alhamdulilah rabil alamin jërëjëf. jërëjëf balaa ma dellusiwaat si Mor Diouf Mor yéen yéen nekk si secteur agricole. waaw agriculture nekk defe naa loo xam ne moom si Sénégal ak si àddina bi yëpp lu am solo ndax dañuy wax ne doo ko bëggee doxal il faut que nga sukkandiku si wàllu mbay mi. Uh-huh. yéen tam ba pare ngeen di ay techniciens ak ay liggéeykat yi. Uh-huh. jamono yee sa gannaaw defe naa jaar yéen ngi fi doon jaar avec. bu fa Samba Gueye am na lu tollook ñetti yoon ba ñeent sax xëy na boo xam ni invité na leen nuy euh, wax seen euh, maanaam ay ñaxtu ba digaloon na leen si loo xam ne saafara defoon na ni ñun jamono bii mu nekk sax affaire yi saafara nañ ko ba pare waaye dafa mel ne du loolu. dëgg la euh, comme ni nga ko waxee effectivement euh, Samba Gaye di l'ancien secretaire secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs agriculture l'agriculture SYNTAS ñu koy nuyu au passage di ko féliciter euh, di ko ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm parce que def na liggéey bu am solo ci syndicat bi comme ni nga ko waxee effectivement ñëw na fi ñëwati fi ñëwati fi. ba ñu yaakaaroon ni euh, liggéeykatu agriculture seen i jafe-jafe en tout cas lu jëm ci indemnité yi ñu doon réclamer jàppoon nañ ni saafarawu na. Mhm. Euh, mais malheureusement li wolof di wax xalam damoon na bay neex buum nga dagg moo ñu nar a dal loolu nag moo tax euh, ñu am taxawaay bii ñu am defe naa ni pour rappeler toujours épisode boobu ngay wax xam nga ci lu bari parce que agriculture dafa am solo. am na solo boo am solo boo xamante ni tey régime yi nga xamante ni dañu succédé wu yëpp ci fii ci Sénégal bu ñuy wax nag agriculture au sens large la ñuy wax mooy agriculture mooy mbay càmm ak euh, ak pêche bi. environnement gi yëpp kañ. voilà ak environnement. <coughs> donc mu nekk secteur bu am solo euh, gouvernement yi fi succédé yëpp. considéré ko comme une surpriorité boo jëlee sax le protocole de Maputo dafa wax ni dañu war a allouer dix pour cent du budget des États africains a euh, euh, l'agriculture kon xam nga ni jox nañ ko solo bu mat sëkk mais nag secteur boo gis dafa am ay acteurs yoo xamante ni ñoom ñooy porter euh, politique agricole bi fa nekk wala politique pêche bi wala politique élevage muy nekk techniciens yi ngay wax mu nekk ay ingénieur agronome nekk ay technicien de pêche nekk ay technicien élevage kon loolu su amee su fekkente ni bëgg nga secteur yooyu dox da nga leen di jox gëdd jox leen gëdd nag mooy nga am yamale ci wàllu payoor bi nga xamante ni ñoom dañ ko séq administration ak seen yenn nawle <coughs> yoo xamante dañu nekk dañu ñi dañu nekk justice ñi nekk euh, finance ñi nekk ci yeneen secteurs yi looloo taxoon bi nga xamante ni ñun xool nañ xam ni payoor yi ñu ñuy fay euh, jekkul te jaaduwul ñu soobu ci xeex soobu ci xeex boobu ñu defoon nag suñuy doyen yoo xamante ni ñooñu mag fuuf ñoom ñooñ ci njëkk di xeex di xeex seen këmtalaay lu ñu ci mën ba 2010 ñu amoon benn protocole ak état bi bi ñu demee ba 2010 ba 2000 2009 ba 2010 ba mu am 10 ans après gisuñu dara ñun en 2016 en tant que nouvelle génération ñu teg benn syndicat pour jël vraiment. le le le relais pour mën a eggale xeex boobu looloo taxoon Samba Gaye nga ko doon gis mu ci xeex xeex boo xamante ni xeex bu mucc ayib ñun ñu accompagner ko woon nekkoon chargé des revendication ñu dem ba nga xamante ni def nañ sax ñun au niveau du ministère de l' agriculture grève de la fin gudd na gudd boo xamante ni mënuma koo détailler mais nag mhm. dama koy tënk mhm. parce que bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni am nañ protocole d' accord ginnaaw bi ñu créé benn cadre de de comité de dialogue Euh, ñuy rafetlu loolu Moussa Balde mu ko créé woon. Mhm. parce que pour indi ay solution si jafe-jafe yooyu. bi ñu demee nag ba signé protocole d'accord boo xamante ni état du Sénégal à travers le ministère de l'agriculture engagé wu na pour jox ñu l'indemnité de prise en charge agricole. ñu dem ba inscrire ko ci budget 2022 bi euh, génne arrêté boo xamante ni euh, Abdoulaye Daouda Diallo muy l'ancien ministre des finance ak Moussa Balde ñoo ko xaatim pour ñu war ñoo jox indemnité. de prise en charge agricole. ñu dem voté ko assemblée nationale loolu mooy député yi joxe nañ caution pour que ñu jox ñu indemnité boobu bi ñu demee ba euh, janvier février mars ginnaaw bi. après 2023 2022. 22 du moins 2022. Mm. bi Abdoulaye Daouda Diallo ak euh, Moussa Balde jëlee ay garanti ni janvier lépp dina yemb bañ fay ñu ko ñu dem ba janvier février mars gisuñu dara ci lañ yëgluwaat yënguwaat. xeexaat ak ñoom xeex bu metti ba ñu def ci liñ ci war a def yëpp ba ñu tàmbali ñu ko fay kon bi ñu ko tàmbalee di fay nag ñu ni ah ñu sant yàlla parce que li taxoon ñuy xeex donte ñeenti indemnité lañ tegoon ci table ji parce que indemnité de risque dañ ko war a am indemnité de logement dañ ko war a am indemnité de responsabilité particulière dañ ci war a tolloog suñuy nawle yi nga xamante ne dañu nekk ci yeneen secteurs yi mais nag comme président la république budget bon en fait enveloppe bi mu joxe woon mënul woon a mate ñeenti indemnité yooyu ñu ni ñu nañ ñu joxandi indemnité de prise en charge agricole ñun leen d'accord nañ parce que xam nañ fi réew mi toll ndaxte Covid jaar na fi lu bëri jaar na fi ñu d'accord ak ñoom loolu ñu fay ñu ko ñu commencé duñu ko fay espoir judduwaat ci euh, agriculture juddu ci pêche war a judd ci élevage ndaxte ñëpp xamoon nañ ni payoor yi néewoon na néew boo xamante ni métti na espoir boobu nag. commencé woon judduwaat ba nga xamante ne ñi dawoon sax ñu ngi dong ñu ngi ingénieurs yi nga xamante ne dañ leen doon jël ñuy bañ a ñëw ñoom sax nangu nañ ñëwaat ñeen ñi di jugewaat feneen di ñëw espoir boobu nag moom la Abdoulaye Daouda Diallo fan yi jël daal di euh, nasaxal espoir boobu parce que dafa bëggoon a tas yaakaaru travail mooy lan jël indemnité boobu ni da koy supprimer. lu tax. ah loolu nag moo ñu jaaxal. ah mais non xanaa leen dana waxtaan au moins ak yéen ko supprimer lii moo tax lii moo tax waxtaan amu ci. waaw mais waxul tam lu tax daf koy supprimer. waxtaan amu ci ndaxte li tax man la waxtaan amu ci euh, te loolu tamit dañ koy ñaalu respecté wuñu ñun en tant que travailleur. waaw mais ñooñu li tax moom lan la moo tax. mu koy laa la wax dama la ne note bi nga xamante ni moom lañ bind ñoom. Mhm. not bi ba tey muy man mii fi toog ak muy sama camarades yi yëpp daanaka nanguwuñ ñu ko jox. ah lu tax. Ah, xëy na ñu nga xamee waaw note boobu note bi ñun xam nga ci réew mi lañ dëkk. waaw. Euh, li tax ñun ñu gën koo xam agriculture xëy na pêche ñoom ñu ngi commencé doon fayeeku euh, ñu ngi doon fayeeku ñoom euh, le cinq bu ne dañ doon jot. Mhm. ñun ay le 15 lañ doon jot ay le 17. bi ñu toogee ba weer bi passé fayuñu ñu ba <laughs> ñu ngi tey le deux faw ñu laajte. Mhm. bi ñu laajtee tamit yéeg wàcc dugg génn lijjanti lañ xam ni lañ ñu xamal ni ah ab Abdoulaye Daouda jàll moo ni supprimer na indemnité yooyu tegul nag suñ loxo loo xamante ne aj nam ngooñ. parce que même autorités yi nga xamante ni ñoom la concerné ñoom ci seen bopp sax boo leen laajee comprendre ñu mesure bi parce que xam lan moo tax. mu waaw mais pêche si wax ndax seen ministre bi xeexoon na si xeex yu métti de. waaw ah suñu ministre xam nga fi mu ko defee fi mu ko defee moo compliqué parce que daf ko def ci contexte bu particulier mooy contexte boo xamante ne remaniement la maanaam dañuy changer gouvernement foofu la ko defee xam nga nag période boobu boo demee ci ministre di wax ak moom daanaka ku nekk sa bopp ngay tal ndaxte ministre bi ngay. waxal waaw ministre bi moo ko def wala Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo moo supprimé. waaw bon mu supprimé bon ministre bi ko yoonu mu nekk si. waaw loolu laa wax. waaw moo tax Moussa Baldé ñun ban demee seeti ko. Mhm. moom mënu ci lu bari. parce que fa mu toog moom leeru ko ndax fii ak suba dina nekk ministre. moom lu mu leen wax. non li mu ñuy wax mooy euh, euh, bu fekkente ni euh, defaat nañ ko ministre évidemment mu nekk agriculture. Mhm. ah dina ci xar tànku tubéyam parce que moom tey mën nañu wax ni indemnité bi moom. moom euh, ci actifam la bokk maanaam ci bilaam la bokk la bokk bien sûr kon bu ñu ko daggee daanaka bilaam lañ dagg waaw parce que tey mënatul a taxaw fenn bu fekkente ni lii wëy na mënatul a taxaw fenn ni man ba ma nekkee agriculture maa leen jox waaw mais Abdoulaye Daouda Diallo moom amul leen benn information bu jógee non Abdoulaye Daouda Diallo bi mu koy jël suñuy ministre sax ñoom boo toogee ñoom xam ni yëgalu leen ko ni en tout cas waxtaan amu ci boo xamante ni ñoom parce que ñoom comprendre. waaw man li wax dañ dagg donc. est-ce que moom signifie na leen que kii dañ ko dagg. effectivement fi mu toll nii nii nii nii nii. nii bu weer bi dee ñun dañu yoreel ñaari weer. suñu ñoom est-ce que waxagum nañu waxagum dara. dañu ñoom waxuñu dara mais ñun dañoo dem ba ñun bañ ko yëgee ñun dañoo dem déplacé wu dem ba suñu secrétaire général bi nga xamante ne moom lañ ko envoyé. Hmm. interpellé ko mu jël leetre bi liir ko suñu kanam. lettre note bi. notu Abdoulaye Daouda Diallo waaw note bi nga xamante ne Abdoulaye Daouda Diallo moo ko euh, envoyé euh, ministre de l' élevage ministère de la pêche ak ministre de l' agriculture. pour wax leen. pour wax ni indemnité yi nga xamante ne ay indemnité interne la. Euh, euh, supprimer nañ ko. bon d' accord annulé nañ ko. supprimer nañ ko léegi mooy daan dellusiwaat léegi mooy ñëw si Amadou Karé yow mi nga xam ne yaay secrétaire général bu syndicat bu euh, élevage également yow tam ban jàngat nga am tey jii si lii wala loo mën yokk si li nga xam ne moom la wax est ce que feebar bi leen dal yéen tam noonu la leen dalee comme su ma yeboon ni la ci ñun la gën a métti. <laughs> Ah, ah bon. ah parce que ñun élevage. Mhm. commencé woon nañ fay camarades yi yëpp pêche agriculture. élevage d' abord ma laaj ñan ñoo fee bénéficier foofu si élevage. tous les travailleurs ñoo ci waroon bénéficier. Ah, tous les travailleurs. waaw bon d' accord. parce que enveloppe la boo xam ne président moo am xel mi wax nuñ koy doxalee. ba du am impact ci budget bi ci fonctionnement ministère bi ak yëpp. Mhm. ba ñu def ko mu am jaar mu bind décret moom président mu jaar LFR mois de mai passé mois maanaam loi de finances rectificative mu waroon des benn arrêté boo xam bu ñu ko defee. dañuy defar ay état agent bu ci ne ñu jël sa compte virer la ci sa li nga war a fay ko mais ñun liñ ci jaaxal mooy. yan agent la c'est tellement agent élevage yi nga xam ne si bénéficier. bon il y a des yi y a tous les yi docteur vétérinaire ah, agent technique ingénieur. les autres les gestionnaires tout. ah oui d'accord presque tout le monde. Mhm. parce que yàlla dafa def au niveau de l'élevage comme ni ko la camarade moor waxee on musuñu bénéficier benn indemnité musul am. déjà en 2018 bi ñuy def journée de l'élevage à Ranérou jox nañ ko suñu mémorandum président ni ñu c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ñu hmm. dellu soit mois de mai premier mai deux mille deux mille vingt et hmm. xam nga ni central la doon recevoir suñu secrétaire général central muy Mody Guiro ñu dem waxtaan ak moom mu dem poser problème bi président président ni ko mënul yokk benn salaire hmm. mais néanmoins amul benn acquis boo xam ne dina ko dindi. Mhm. loolu président moo ko wax. le premier mai. yàlla def ñun ñu commencé procédure bi man presque chaque semaine deux ou trois fois dinaa ñëw jokkoog suñu secrétaire genre wala suñu DC wala le chef du personnel ñu ne signé nañ lii def nañ lii ainsi de suite mais nangu jox numéro décret yooyu mais bi demee ba ci biir ñu commencé fay camarades yi ñu jékki-jékki ñu ne ñu ah yéen de affaire bi dindi nañ ko. loolu nag leen ko wax kooku. man dama doon jokkoo ak suñu secrétaire général. ak chef du personnel bi. bu ma woowul kii woo naa kële wala ma dem fa. Mhm. ñu ne ñu ah Abdoulaye Daouda Diallo nee na affaire dañ koy arrêté ñun loolu mënul nekk. parce que président moo ni woon amul benn acquis boo xam dina ko dindi parce que bi ñuy def euh, le système de rémunération président moo ni woon ñi ne ci kaw li ñu yor du ko dindi. Mhm. dina seddaal ay pexe ba ñuy ne suuf fekk ñi ci kaw. wala peut-être ñu jege leen tuuti. Mhm. loolu président moo ko waxoon. te ñun dañ ko gëm. on croit au président yàlla def bi ñu defaree situation bi yëpp ba ñu wax ni ku ci ne ñu def clé de répartition yi nii hiérarchie A lii ngay am hiérarchie B lii ngay am ainsi de suite ba mu dem ba ci suuf mais loolu dagg bi dafa mel ni dañ bëgg a toroxal ay travailleurs ay citoyens parce que ñu bëri boo demee agriculture wala pêche ñu ci bëri commencé nañ am beneen plan ci seen famille. Mhm. di def prêt ñuy dugg ci ay tontine. du pour fo sax mais. pour nu ñuy améliorer seen. condition de vie seen xaalis ak ñu koy répartition waaw ñii commencé nañ leb ñii commencé. waxaale ay terrain ainsi de suite. Mhm. nga xëy bis dagg ko loolu dafa mel dañu bëgg a toroxal gars yi. Hmm. loolu nag duñ ko seetaan mënul nekk président moo ne woon amul benn ak yi boo xam ne dina ko dindi moo ko wax premier ñëpp dégg ko central yëpp toog donc loolu bu amee te ñun suñu bos jaar am décret jaar LFR loo xam ni mais mënuñu jël benn. circulaire boo xam ni mooy ñëw rek dindi affaire yi noonu comme ça mënul nekk c'est pas possible bu ñu jaralee sax dinañ def toutes les actions possibles ba ci attaquer ko juridiquement parce que mënul nekk travailleurs yi ñoo ko moom ci budget lañ ko jële Macky moo génne xel moomu moo ne woon moom mënul yokk benn salaire le président Macky Sall moo ne woon mënul yokk benn salaire mais néanmoins mu génne xel mi ni nañu cop fii comp fii com fii jox ko kii. du ne comp fii c'est-à-dire fan la ñuy comp exactement. ci budget yi parce que boo budget bi d'accord. waaw loo tax moom loi de finance rectificative. voilà parce que boo defee attention. souvent budget yi rek maa waxtaan ak suñ benn gestionnaire nee pour ñu dem ba 60 pour cent sax c'est difficile. parce que waa finance ñooy indi problème. des fois dañuy dem ba yenn kii ñu ne bon lii dañ ko soxla daal di koy jël loolu nag dafa war a dàkk ci dëkk bi dafa war a dàkk. sànq maa ngi déglu sëñ Mor. am na fu mu waxee ni waa finance xeebaluñ leen dara yéene nañ leen li ñu am. Hmm. am nañ cinq fas euh, euh, ay indemnité cinq indemnité. finance waaw argent finance yëpp ñun amuñu dara on n'a rien du tout te li ñuy daj ci àll bi dafa metti soixante quinze pour cent de nos ñu ngi ci àll bi ñu ngi zone yoo xam ni c'est vraiment déshérité dara amu fa ñooñu nag boo leen yërëmul nga leen ak seen yelwaan nga jox leen loolu tax au début bi may jël paroon ma ni ñun ñoo gën a mettale ci affaire parce que ñun moment bi ñu waroon fay fin juin lañ jékki-jékki ni dañuy couper affaire bi loolu nag mënul nekk. donc depuis fin juin ba léegi ñu ngi coupé bu alors. ñun jotuñu jotuñu sax un franc jotuñu un franc au niveau de l' élevage loolu dafa ñaaw. depuis fin juin billahi am na ñoo xam ne commencé woon nañ sax créer ay tontine commencé ay fonds ñiy def prêt. Mm-hmm. oui loolu dafa ñaaw. bon léegi ñu continue daal de toute façon daal di nga dellusiwaat si Euh, Oumar Dramé. Mhm. yow yaa nekk euh, secrétaire administratif bu syndicat bu euh, pêche. Mhm. voilà également yéen ban lan mooy seen problème yéen. voilà donc Matar daanaka problème secteur primaire bi yëpp même problème la te loolu soo xoolee lu ko indi maanaam dañuy def benn historique. boo xam ne donc rapidement ngeen di tënk parce que temps baa ngeen damay fàttali mbokki auditeurs yi juróom-ñaari waxtu teg na waaw fanweeri ak juróom yéen a ngi topp seen émission waaru si Sud FM tey jii nuy waxtaan affaire intersyndicat bu euh, pêche euh, napp gi ak également agriculture dégg ngeen naan defe naa dégg ngeen ay mbirum yëngu-yëngu yi ak seen indemnité yi nga xam ni euh, ministre Daouda Diallo moom moo ko arrêté di leen ko fay loolu na nekk fii di waxtaan ñoom sax actuellement fi nekk ñoo ngi grève pour 72 heures di yëgale seen bopp pour ñu delloo leen li nga xam ni seen cër la. waaw donc soo hmm. xoolee premier mai euh, deux mille vingt et président de la république ba muy recevoir centrale syndicale yi dafa ne secteur primaire moo nekk secteur bu gën a am solo ci économie réew mi parce que ñooy dundal réew mi donc euh, président ne mais malgré tout ça ñu nekk ci secteur bi ñépp ñu ngi takk seen bagage di génn parce que seen seeni payoor dafa dérisoire loolu président moo ko wax. léegi nag président ne wax dëgg fa la seen yeneen naataango yi ñu ngi recevoir donc lu mu dee dee presque double wala triple seen salaire loolu nag nee na kenn mënu loolu c'est inacceptable léegi président dafa proposer ñu trouver ko des solution des solutions internes maanaam nee na moment boobu mënuñu woon yokku donc salaire yi dans le budget général de l'État léegi il fallait des solutions internes solutions internes yooyu nag ministre bu nekk dem toog ak donc euh, syndicat euh, différents ministères yooyu trouver solution yi ñun soo xoolee au niveau euh, de la pêche donc ñun solution bu ñu ut mooy donc ñun dañoo am fonds boo xam ne ñun suñ fonds sax jaarul ci budget ñun suñ fonds donc c'est un fonds interne boo xam ne donc wax dëgg fa yàlla dañ ko waxtaanee xool fonds boobu fu ñu ko jëlee def ko à travers un compte de dépôt au niveau du trésor donc compte de dépôt boobu noonu chaque mois dañuy def état au niveau de notre euh, euh, euh, DAGE parce que ñoom ñooy administrateur de crédit donc ñu def état après viré ko ci compte agent yi mais lu ci dee na doy waar mooy depuis janvier ba léegi ñu ngi fayeeku par rapport ak prime yooyu noonu prime interne yooyu te prime yooyu wax dëgg fa yàlla dafa dem ba bokk ci dundu agent yi parce que nag travailleur su amee yokkutee lu muy xalaat mooy investissement loolu dafa bokk si nit. yéen kañ ngeen commencé woon di fay prime yooyu. prime yi depuis janvier. ba léegi bii waaw. ñuy commencé di fayeeku ba presque donc mois de juillet xam nga si lañu si lañu si lañu dagg si lañu dagg prime bi mooy note boobu noonu sept septembre la ñëw donc nu ko élevage amee euh, agriculture am ko ñun aussi si nañ ko am benn not circulaire boo xam ne soo xoolee note circulaire mënul supprimer décret. mais note circulaire bi lu si def. waaw note circulaire bi donc dañoo wax ne ne donc euh, euh, compte tenu donc augmentation générale yu ressenti gouvernement bi def à travers la fonction publique. Mhm. donc note circulaire boobu nee ne euh, augmentation général boobu moom mooy substituer les primes internes. donc yéen donc yéen augmentation yi générale yooyu donc yéen bokk ngeen si. waaw mais nag léegi nag loolu tax moo ñu léegi donc indemnité yi. Euh, kooku de danañ koy dindi. voilà léegi dañuy ñëw si particularité boobu si spécificité boobu noonu. xam nga suñ ne donc euh, augmentation général yooyu mooy mooy substituer prime yi déjà loolu c'est impossible parce que euh, yokkute mënul ñëw substituer beneen yokkute te alors que augmentation générale bi ñëpp si bénéficier wu même au niveau de son ministère Abdoulaye Daouda Diallo finance ñoom comme nu ko doyen Kare waxee ils ont beaucoup de primes wax dëgg fa yàlla ñaanewuñ leen ko mais aussi donc on a le droit d'avoir des primes mais pourquoi pourquoi donc ñëpp bénéficier wu ci augmentation générale bi te ñeneen ministères yi continuer di di recevoir seen prime c'est ce qui est inacceptable xam nga inacceptable ñun lu ñu mun a d'accord yow nga ne augmentation générale bi état bi def na ko nañu supprimer toutes les primes au niveau de tout tous les ministères ah donc fa wax bi foofu la te alors que loolu ci boppam moom moo yenuwul maanaam loolu du dëgg du yoon parce que munoo fekk donc ñoo xam ne depuis 1960 musuñoo am prime alors que dans ce pays là su ma la ne y' a yoo xam ne c' est réparti à travers les ministères te ministère des finances ñu donc ñoom ñoo ëpp prime déjà am nañu prime heure budget am nañu prime donc à l' incitation au recouvrement am ñu en dehors de ça seeni fonds commun ñun amuñ si dara. léegi nga bëgg a ñëw nga ne augmentation général yi nii moom moo war a substituer prime yoo xam ne président moo ñu ko jagleel te impacté si si budget bi loolu dafa am solo. impacté wul si budget bi mhm. parce que c'est des solutions internes. Interne. Oui, xam nga. Mhm. donc loolu pourquoi donc augmentation générale ñu ne moom mooy substituer prime yi loolu teguwul ñun noon nañu d'accord xam nga ñu supprimer. Euh, toutes les autres primes des autres ministères au niveau des mhm. finances au de la justice la santé l'urbanisme fonction publique ñëpp ñu yem si bu boobaa munoon nañu d'accord ne ah donc amuñ si lu ñuy lu ñuy lu ñuy wax. mais dafa naa dafa am bi allo. waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. agent technique élevage El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick fan wootee. man maa ngi wootee Guédiawaye. maa ngi lay déglu ñëpp maa ngi leen ziar ndax xam nañ ma. Mm-hmm. di commencer par Carré ak ñoom ñooñu ñëpp di leen wax ni ñu ngi leen di déglu. Mm-hmm. Euh, ñun nag duñ wax ci secteur élevage ak secteur pêche ak yëpp wax na dëgg nit ñoo ko bokk. Mm-hmm. mais boo xamee njëriñu élevage tey. xam mm-hmm. yeneen njëriñ yi da nga xam ne lii muy xeex yenu na maanaam. Mm-hmm. par exemple benn exemple rek laa lay jox tey. tey boo niveau au niveau du port autonome de Dakar tëj nañ service yi au niveau de l' tëj nañ service élevage au niveau terrestre tëj nañ service yi am na abattoir yoo xam tëj nañ ko tey tey dafa ñu xooluñu benn yàpp xooluñu benn jën xooluñu benn meew xooluñu benn format xooluñu lu xooluñu lan lenn loo xam ne population bi da koy lekk tey parce que danoo nekk danoo suñu préavis dafa jeex le 19 CREI ma déposé ko ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam ak ak association yu nekk ci élevage yëpp di xeex lii ñi nga xam ne ñoo ko moom bu dee ñun élevage lu ñu ponctionné suñu suñu budget la dañ ñu ko war a jox par A ou par B tey tey tey li ma leen wax ne docteurs yi dañuy faj nit ñi mais ñun waa élevage dañuy faj la l'humanité parce que lépp luy dem ci biir ñun ñoo koy xool ba xam baax na wala baaxul tey tey transitaire bu tey am frigo conteneur frigoom tey bu fekkee génnewu ko tey bu fanaanee port day faire quatre-vingt-dix mille cent mille par jour trois jours yi ñaata la bu ñu ko defee une ñaata la xanaa kon yenoon na maanaam boo demee DPV waa agriculture yooyu ñu def même chose si yeneen fruits et légumes ak yeneen yooyu dugg port tey ah, génnewu ko tey xanaa trans après loolu yëpp loolu yëpp boo ko boolee si bopp population bi lay lay wadd parce lu ma jëndee cent francs yeneen frais fekk ma si dama koy yokk du ma ko jaayee ci cent franc mm-hmm. kon tey waa population bi tey ñoo war a jug xeexal ñu tey mais ñii li ñuy xeex yenu na maanaam parce que suñuy salaire dañuy gis ni ñu doon mais ay salaire bourse la ñu am ñun waa élevage ak yeneen secteur primaire bi danoo sonn ñooñu ngay gis noonu danoo xeex bay bëgg dee xeex nañ ku si nekk lu gën a tuuti ëpp na fukki at ak juróom ñun ñoo mujjee ñëw te ñun matal nañ ko ñooñ danoo xeex xeex xeex ba mënatuñ tey nag ça passe ou ça ñu ne waa élevage moom xaw ma ñeneen secteurs yi gën a dégg mais ñun on est décidé le mot d'ordre a été respecté à cent pour cent dans toutes les régions du Sénégal on a vérifié ça on est à cent pour cent sur l'ensemble sur du territoire national. te ñun do xamuñu dellu ginnaaw suñ duggee seen affaire si benn kii dañuy dem ba jeex pour bañ a manipuler la parce que am naa ñeneen ñu war a dugg. mooy en tout cas ñett ñoon toog ñun ñu seen ginnaaw tey ñu ngi seen ginnaaw ëllëg. balaa ñu ñoo woo sax dañuy gis seen kanam soxla ñu ñu woo ñun ñu ngi seen kanam ñoom bu yóbboo ñu nekk sax si ginnaaw bàyyi ñu ñu jiitee jiite leen ñoom ñu noppalu. jërëjëf noonu daal la amul lu may wax. d'accord merci beaucoup jërëjëf voilà. waaw ñu ngi remercier suñu camarade boobu élagement Hadj mhm. donc pour wax na ne donc euh, wax dëgg fa yàlla lii ñun mënuñ koo comprendre parce que drame social bu ministre des finance bu fi nekkoon Abdoulaye Daouda Diallo moom la créé. te wax dëgg fa yàlla commencé woon nañ xoggaliku parce que ñoo xam ne mu musuñoo am pendant trente ans ñu ngi xeex xam nga aussi yi lu ñuy wax droit d'acquis loolu su fexee ba nit ñi am ko mais loolu kenn waru koo dindi parce que xeex bu métti lañ defoon pour am pour am acquis boobu xam nga balaa ngay am acquis sur le sur sur le plan de valo revalorisation des salaires xeex boobu day métti parce que ay incidence donc lay am sur euh, sur le plan financier côté état mais suñ xamee ne donc euh, yow li ngay li ngay ñaxtu yenu na maanaa ñu accordé la ko donc ñu bugg tëb tëb tey nit ñi def si ay prêt def si donc lu nekk di si dimbale seen i njaboot di si euh, euh, améliorer seen éducation doom xam nga donc nga bugg a jékki-jékki loolu rek ko loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba dañ koy xeer te daw da Diallo xamoon na ne lu muy def donc moment bu mu ko defee baaxul. te daf ko tey def ko parce que le président de la république lu mu waxoon dafa leer gérer leen les affaires courantes pourquoi mu profitoo si moment boobu noonu bugg a donc euh, euh, jël ay décisions yu impopulaire xam nga inédite inacceptable loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba dañuy xeex ba ba ba ba su jaral nañu sax suñuy bakkanaa ah, parce que lii donc c'est du n'importe quoi et on appelle donc le gouvernement actuel mu saafara mbir bi parce que véritablement lu muy jur kenn xamul lu mu fu fu fu fu muy fu muy fu muy fu mu yem donc loolu véritablement on demande à ce que ñu rétablir ñu suñu indemnité interne immédiatement parce que ñu ko am si dans les autres ministères xam nga donc gënuñu nous sommes tous des travailleurs de l'administration sénégalaise donc loolu véritablement c'est c'est c'est loo xam ne la ah xamuñu sax nuñ koy qualifier yéen si bu euh, niveau pêche ñan yooyu c'est bénéficié si secteur pêche. waaw xam nga euh, indemnité bi enveloppe bi c'est donc euh, un milliard trois cent cinquante mille. niveau pêche. niveau pêche. Mhm. te indemnité interne boobu ba mu ñëwee. ba ñu def ko si compte de dépôt au niveau du amul kenn koo xam ne donc mu ngi agent au niveau des pêches amul amu ko ñëpp ko am ba ci contractuel. mais c'est tellement seen kii agent yi nekk pêche. donc y a les Oui, ingénieur. Des ingénieurs donc euh, euh, donc euh, au niveau de la pêche. Mm les docteurs parce que am nañu ay docteurs yu nekk ci pêche bi. am nañu ay technicien mhm. am nañu ay ay ay ay ay agents techniques. am nañu donc euh, ay contractuels nga xam ne donc euh, gestionnaire informaticien agent administratif ñëpp a bénéficier aussi indemnité interne bi sans exception nga bugg a ñëw tey donc supprimer loolu au nom de quoi mais on est dans quel pays pourquoi donc une une simple circulaire peut abroger un décret du président ou bien un arrêté interministériel c'est inadmissible. ah mais lan ngeen yaakaar moo tax loolu période électorale na nekkoon de def naa sax dinañ waroon dooli wala gaañ seen euh, sac bi si élection yi loo tax nu wëlbati ko fii. non xam nga loolu ñoom problème la ak politicien seen problème la foofu mais état. ah administration c'est du sérieux oui c'est du administration euh, amul amul lenn lu muy laaleeg politique c'est donc munoo donc def ay jàngat véritablement pour yokkute parce que ñoom xam nañ ne ne mun nañ ko enveloppe bu ñu dégager pour loolu mun nañ ko suñ ko munul woon duñ ko def. waaw mais du ce qui c'est budget interne sax nañ ko. waaw mais effectivement loolu amul benn impact ci dans la dans dans dans le budget donc euh, général de l'État. waaw mais man li ma leen bëgg laaj. affaire bi comme ni ngeen di waxee nii yéen doo seete secteur primaire la laal mais lu tax ñu tàmm ci secteur primaire. voilà waaw ba tey loolu defe naa ni euh, euh, tontu ci dina dina dina yomb. Euh, pour wax la ni du problème mu disponibilité ak problème mu budget fi ñu ko teg fu wóor la mooy ni budget deux mille vingt yi. xam nañ ni fi ñu toll ni mu ngi en phase de préparation. ñun au niveau de l' agriculture dans le budget de deux mille vingt trois inscrire nañ ci cette indemnité la kon ça veut tout simplement que même nos autorités nun au niveau interne ñoom ils sont dans une dynamique de continuer. ces indemnités là mais maintenant on n'a pas compris pourquoi Ablaye Daouda jël euh, Ablaye Daouda Diallo jël mesure boobu léegi nag man fi ma jàpp ni fan lañ ko teg xam nga lan la wax naa ko korok suñu autorité yi yabaate dañ ñoo yab ñun c'est-à-dire que li ñuy wax ni agriculture pêche élevage secteur primaire bi priorité la loolu dañ ko gëmul ñoom loolu mooy problème état yi nga xamante ni ñoo fi nekk buñ ko gëmoon du ñu jël li nga xamante ni secteur boobu yow ci nga yaakaar pour dundal sa réew secteur boobu nga yaakaar yow pour que sa économie mu nekk la moteur de la croissance parce que boo demee dans le PSE on dit que c'est l'agriculture au sens la qui doit être le moteur de la croissance mm-hmm. loolu la président de la république wax loolu nan nga ko mën a kii ba pare léegi nag parce que am lu tax ñu wax yabaate la lii ñu def agriculture def ko pes e ak élevage kenn xalaatul def ko ministère de finance xel xalaatul nga dem justice di ko fa def xel xalaatul nga dem santé di ko fa def lan moo tax ñu taamuñu léegi nag gis nga wolof day wax ndaama su yebee ndool xaw ma si si doxin ba la ñun désormais dañ leen bëgg a xamal ni avec cette nouvelle génération la woon dafa wan ni maanaam du ñu nekk toog fii kenn di ñu piétiner parce que li mu ko wax li mu wax Dramé c'est vrai c'est une mesure boo xamante ni inédite dans l'administration di Sénégal amul fenn foo xamante ni mën nañ la wax ni ah, mës nañoo jox avantage ba pare di ko substituer parce que bu fekkente ni am ndaa toj ndaa mais olof nee na du tax nga bëri ndaa. Mhm. tey ñoom bu nu amee benn ñaar ñett ba ñeenti indemnité c'est parce que dañ leen a jox benn joxaat leen mais joxuñu leen benn rocc beneen ba ni leen bii lañ ko remplacer loolu du logique. Mhm. maanaam damay jël dugal bii génn bee. Mhm. buñ ko doon def ci administration sénégalaise amul kenn koo xamante ni di nga am ñaari indemnité maintenant léegi nag dafa am loo xamante ni wax na ko duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg te dañoo bëgg le nouveau gouvernement bi nga xamante ne ñu ngi koy installé ñu leen di féliciter di leen encourager di leen ñaanal succès ñu rétablir lii nga xamante ni jekkul jaaduwul te ñun duñu ko nangu pour que autosuffisance alimentaire boobu ñuy wax ak ay sécurité alimentaire mm-hmm. nga dégg mu nekk slogan ñu koy wax bu ñu ko buggee atteindre objectif boobu il faut que ñu jox gëdd secteur bi nga xamante ni moo ko porté parce que ñëpp xam nañ ni le secteur primaire c'est un secteur productif moom mooy créer les ressources yi nga xamante ni tey état moom lay fonctionner mais tous les autres ministères là commencer par le ministère des finances on n'a rien euh, contre eux mais il faut le dire ce n'est pas parce que eux ils manipulent l'argent de l'État que ñoom tey ils ont tous les privilèges du monde et ils ont tous les droits du monde et di di di di di et ñun ñi nga xamante ne c'est nous qui créons la richesse ñun amuñu benn droit dañu war a euh, jox ay salaires yu misérable parce que noonu la ko président de la République qualifié ñu nekk dans une situation nga si benn parti boo xam ni mm. euh, sànq mais damay dellu soit gannaaw pour poser benn question mm. sànq da nga wax ni ñoom dañ leen yàpp waaw mais yëpp boobu ñu leen yëpp si fan nañ ko teg ba yëpp leen. waaw looloo ñu jaaxal ñun fan lañ ko war a mën a teg xëy na xam nga man li ma comprendre mooy euh, xam nga tey bu doon ñun ñoo yor suñu gafaga. xam nga gafaka réew mi ministère des finance moo ko yor mais jàpp naa ne tey bu ñu yoroon ñun suñu gafaga moom du am sañ-sañ di ko dagg loolu laa jàpp parce que ñun suñuy ministre suñuy autorité d'accorduñ ci mesure bii. kon yabeel gi mu ngi jóge ci xëy na nit ñu gisee ak nit ñu foogee nit ñu bëgg a ñàkkalee fayda depuis 1960 ba tey. loolu dana ñàkk a mbay mbay fayda. waaw effectivement <laughs> effectivement xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que tey bu ñu nee dañu amal fulla ak fayda fonk euh, euh, euh, njàngale mi day feeñ ci jàngalekat yi. Mm-hmm. bu fekkee ne dañu wax ni. dañoo respecter justice day feeñ ci les acteurs de la justice. lan moo mën a tax lan moo mën a expliquer les magistrats revenus yi ñu leen jox. c'est parce que dañ leen bëgg a fullaal bëgg leen faydaal. looloo tax ñu jox leen loolu. am na ko nekk si bi nga may ma tuuti allo. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. allo. allo maa ngi lay dégg man nga. allo. waaw retour bi dafa xaw a faible tuuti quoi. waaw euh, Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam. Mbour. Mbour waaw waaw waaw waaw di leen nuyu di leen nuyu yow principalement yow sa technicien ak euh, sa invité yooyu. Hmm. Euh, sa invité yi dégg naa lu ñuy wax ñu ngi ci seen droit kooku moom kenn mënu koo bañ mais man nag lu may fustigé mooy waroon nañu am un kii un interlocuteur mais moment bi ñoom xam nañu mënuñu am interlocuteur parce que ministère bi Daouda Diallo neewatu fa léegi defagul passation de service ak le nouveau te le nouveau tamit il faut mu ñëw xool dossier yi nekk dans le bain xam lu tax Abdoulaye Diaw Daouda Diallo defoon loolu kon normalement normalement ñoom bu ñu respecté woon population bi seen mouvement bi dañ ko waroon ak ba ministère bi toog ba déglu leen ñu defaat ñu dem waxtaan ak moom déglu leen bu ñu amul kii ñu def parce que def jour jours ñoom dafa ñu ko état bi ñun lañ koy def ba pare ñu koy bàkkoo man loolu moom mu gën a metti bàkkoo bu ñu koy bàkkoo mooy metti naan port ba tey kenn liggéeyu kenn liggéey loolu du ndam du ndam sa population ba fi jamono toll nii nga leen souffrir loo du ndam Sénégalais yi nañu xool nañu xool fu ñu jëm ñoom kaa suñu salaire cas suñu indemnité de logement cas suñu prime transport suñu kii indemnité ay ay aide la ñuy kaas. indemnité nañ wax ñoom. allo. ñoom indemnité nañ wax. waaw indemnité boobu lu taxaw ñu def ko amuñu intellect ñoom ñett ñoo fa nekk di wax amuñu kenn ku fa nekk di pour wax pour pour xam lan moo tax ñu defoon loolu parce que fi mu nekk mun am un interlocuteur kon c'était pas le moment que ñuy def grève trois jours hm? maa ngi leen di. sant di leen gërëm wasalaam. Euh, naa kii du ngeen bëggee du fekkee ne am ni lu ngeen si wax bala ñuy jàll itam mën ngeen ko répondre du ngeen kii ah. ma commencé par Carré d' abord oui. merci kooku moom may ñu def naa une seconde rek ñu jàllale suñu benn page euh, publicitaire. suñu réew mii di senegal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen di may àllarba bu jot bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku voilà merci beaucoup LBA la banque agricole banque monde rural bi mu ngi noonu euh, léegi ñu delluwaat si émission bi Amadou Karé yow yaay général bu euh, syndicat travailleur bu élevage du fekkee ne am na d' abord bala ñuy continuer looy nooy apprécier kii nga xam ni moo woote woon léegi Mohamed Thiam Mbour la wootee. waaw Mohamed Thiam ñu ngi koy remercier ci dugg bi mu dugg mais nag dañ ko bëgg a xamal ni euh, na gëstuwaat affaire yi bu baax. parce que laajul ñuy def ay débat contradictoire ñun dañuy ñëw exposé li nga xam ne moo ñu dal bu fekkee ni daf ko weddi na jege lee différent service mu xool li am parce que ñun li ñuy wax amul dara luñ ci sos lu am la bu fekkee ni mi ngi suur actualité vraiment war na xam ni loolu ñu wax yëpp dafa am parce que 1960 ba léegi ay travailleurs yoo xam ne ñoo seen mbagg ci la euh, économie réew mi euh, sukkandiku ma yaakaar naa ni ñu dañ leen war a jox cër parce que yabaate bi kii doon évoqué léegi le camarade Mor daf naa bu doon éducation du am la preuve ñoom bi ñu leen yokkalee bëgg ko imposer dañ taxaw ni na arrêté wala ñu dem seen kër toog immédiatement Abdoulaye Daouda Diallo moo dellusi si corrigé ko dindi imposition yëpp loolu koy dafa leer kooku koy mi ngi ci xelu ñëpp ñun amul lu ñu sos yabaate bi dafa am parce que mënuñu jël un mille par exemple élévage ñu ngi leen jagleel un milliard deux cent. mais un milliard deux cent ñu bind lettre waa ministère ni leen dorénavant xaalis boobu kat dañ koy jagleel contractuels yi. Hmm. mais loolu warul mën a ne. contractuels yi mooy ñan. mooy ñi nga xam ne ci contrat lañ ne. ci contrat lañ nekk waaw ñi ci des ay fonctionnaires lañu ak autres agents de l' état. donc yéen xaalisu bu administration bi ñu jël di ko jagleel ay contractuels maanaam ñoo xam ne toogagul. non non du xaalisu kii sax mais ci budget bi lañ ko. Euh, ab ah, budget ba def LFR loi de finances rectificative. mais loolu moo war a wane ni euh, ñii dañ mérité lii ñu leen war a jox ñoo ko moom nañ leen ko fay parce que li ma wax léegi bu doon éducation la mais du am. parce que ñoom bi ñu leen bëggee imposer ci kii te am nañu ay augmentation dans les différentes rubriques. dañu bañ te am na yeneen yu accès gul sax. yu ñu leen fayagul encore. waaw donc bi ñu leen am na yoo xam ah 100 pour cent lañ koy génn indemnité yi 50 pour cent yi 60 pour cent mais bi ñu ko bëggee imposer gars yi dañ ñu non non non mais Ablaye Daouda ci boppam moo ñëw toog ak ñoom ni dindi naa ko ñun ñu ñëw ñu ni du ngeen am dara dindi nañ ko loolu mënul nekk. Mhm. fi mu ne nii jaral nañu lépp comme ni ko le camarade Dramé waxee sànq. Mhm. jaral nañu lépp. on a tout prévu prévoir nañ lépp bu jaree même man mii de bu fekkee ni jar na sax ñu faatu dinañ dinañ faatu. bon léegi ma ñëw si beneen question yéen euh, est-ce que suivre ngeen seen mouvement bi ngeen def pour xam taux de réussite bi fu marché fu mu marché wul et cetera. taux de réussite bi. national la woon quand même. national bon d'accord bi ñuy ñëw. Mhm. am nañ un taux de cent pour cent. c'est suivi par comme ni ko El Hadj Malick Ndiaye waxee sànq. Mhm. cent pour cent dans toutes les régions du Sénégal am na ñoo xam sax dem nañ sax ba bëgg a def point de presse am na ñoo xam sax seen préfet ñëw na bëgg leen réquisitionné hmm. léegi laa ci doon waxtaan ak waa CNTS hmm. ñu ngi leen bëgg a réquisitionné on a eu un taux de cent pour cent te beneen semaine bii di ñëw on va aller graduellement booy xeexi nag doo jël sa munition yëpp dóorandoo ko dañuy def graduellement bu ñu woote wootewul wala ñu saafara lii dinañ génne yeneen on va fermer tous les abattoirs du Sénégal ak waa agriculture ak waa kii itam au niveau des ports aéroports on va bloquer tout. bon léegi li ma leen bëggoon laaj moom nga dugal léegi. yéen élevage particulièrement mouvement bi ngeen def ban euh, impact impactam décrire nu impact bi muy am si liggéey yi nga xam ni moom si liggéeyu élevage. impact bi dina metti trop te damay ragal sax mu gën a impacter ci population bi. Hmm. parce que boo jëlee élevage spécifiquement. dañu am mission de développement mission de santé animale ak mission de protection des populations mooy indi contrôle yi ñuy am ci abattoir yi. kooku mooy protection. waaw contrôle ak ci marché yi ak yooyu. parce que yàpp yi bu génnee abattoir ñun dañ koy topp am nañu agent yu nekk ci marché yi régulièrement di xool ndax amul abattage clandestin amul leneen. ndax li ko waral mooy dafa am lu ñuy wax euh, des zoonoses maladies yoo xam mën na jóge ci mala ñëw ci nit comme mën na jóge ci nit ñëw ci mala. yooyu yëpp il faut ñu koy aar di ko xool donc loolu bu fekkee ni saytuwuñu kii bi comme ni ko Malick waxee saytuwuñ ko carrément mën na indi ay problème ci population bi d'ailleurs même ci frontières yi y a des de quarantaine pour mala yi nga xam ñooy jóge ci yeneen dëkk yi di fi dugg si ma mala bu fi dugg ñu defal la quarantaine loolu yëpp bu ko arrêté mais ce sera extrêmement grave parce que. te yooyu yëpp arrêté ngeen ko actuellement. oui. rek lañ ñoon nañu xaar tuuti. ba kii parce que ñenn ñi ñoo comprendre moo d'ordre bi daal di dem bloqué yenn abattoir ba préfet jóg ni dañuy dañ leen di réquisitionner mais li nga xam ne bëgg nañ ko def mooy bloqué lépp ba nga xam ni population bi ci boppam jubluwuñ ci sax gaañ leen mais ñu yëglu ñu xam ne ñu li ñuy def mérité nañ lépp loolu à part abattoir bi ngeen wax ak contrôle yi yan yan euh, activité également ngeen di intervenir mooy la vaccination du cheptel d'ailleurs boo fàttali ko semaine bële le ministre bi doon def lancement wu campagne de vaccination du bétail à Tambacounda. te am na ci maladie yoo xam ne buñ ko arrêté wul ba mu laawaat fii Sénégal day dellu gannaaw day delluwaat ci kii bi case numéro un case de départ bi lay dellu te loolu baaxul ci réew mi. en quatre vingt quinze déjà le Sénégal était indemne de la peste bovine. loolu ñenn ñoo ko def fonctionnaire ñoo vacciné ba ba OIE mooy mm, bi méngoog OMS. ci wàllu santé animal moo génne benn diplôme jox ko Sénégal ni leen vous êtes. indemne de la peste boobu et on était même ci côté beneen bi péripneumonie. pré pour waaw pour xaw ko ji mais loolu bu ñu dalee dellu gannaaw. mais Sénégal day perte beaucoup de milliards. loolu ñuy xañ travailleurs yi ñun ñii li ñuy xañ dañ ko perte foofu bu baax parce que euh, am na réew yoo xam ne ñu ngi ex exporté yàpp vers l'Europe fii seen eh, Afrique defe naa benn dëkk rek laa fi gis muy exporté yàpp vers l'Europe muy le Botswana mais ñooñu bi ñu leen laajee lu tax ngeen di kii ñu ni parce que nous sommes indemnes de certaines maladies. Hmm. Sénégal bu demee ba am autosuffisance comme ni ko kii waxee mais exportation bu ñu ko sax xalaat parce que feebar dañ fi ne di law te ñoo ñu koy aar di ko def nañ leen jox cër bi lii loolu du dara par rapport ak les possibilités de l'État du Sénégal loolu dara ñii mérité nañ lu ëpp loolu. mais comme dañ demoon ba di leen ko waaj a jox ñu téye ko loolu weesu na yabaate sax weesu na yabaate sax wallahi weesu na yabaate. voilà am nga appréciation par rapport ak Mor Thiam bi waxoon wala dañuy continuer léegi. waaw waaw waaw donc par rapport ak euh, mbokk boobu woote. Euh, wax dëgg fa di wane ne ñun dañuy ndamoo si par rapport ak lu ñu def mais xam nga constitution dafa garantir donc travailleurs yi loo xam ne donc suñ amee lu leen naqari. ñu ñu ñu ñu ñu def procédure yépp sur le plan juridique am préavis déposé ko fu ñu ko war a déposé su préavis bi amee ab am nañu droit dem grève loolu constitution moo ñu ko may donc état bi à travers Abdoulaye Daouda Diallo xamoon na ne li muy def nii dina yëngal travailleurs yi pourquoi mu def ko xamoon na ne su ko defee mu yëngal travailleurs yi te dina am impact si population bi donc décision impopulaire yooyu surtout moment bu mu ko defee xam nga donc loolu wax dëgg fa yàlla. jekkul jekkul si si si autorité jekkul si nit koo xam ne donc il est à l'abri du besoin il est à l'abri du besoin pourquoi donc mu bëgg ñu teg donc euh, euh, fitna bii nii au sein n'est-ce pas donc des travailleurs muy law ba seen famille ak seen mbokk yi. mais man li ma bëgg laaj yow mi nekk secteur pêche. waaw nga léegi euh, Ahmadou Karim moom nee na un milliard ak xaw ma ñaata bi nga xam ne moom lañ jël si activité élevage kooku contracté li leen koy jox. Mm. yéen seen parti yéen. ñaata nañ fa jël ak duñ ko jëlee fu mu jëm. non xam nga wax naa la ko fii sànq Mata nee naa la donc euh, indemnité interne boobu un milliard trois cent cinquante la. Mhm. ñu jagleel ko ñëpp mais de euh, circulaire boobu mu jël dafa ne donc dañuy rocc ci fonctionnaire yi continuer di fay indemnité contractuelle yi te nag contractuelle yi am na loo xam ne. yóbbu dañuy rocc ci fonctionnaire yi maanaam kenn dootu ko jox. fonctionnaire kenn dootu ko jox fonctionnaire bi. ma ñëw léegi may ma une seconde. salaamaaleykum Ah oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu tudd ak fay wootee danga am bu fay rajo bu nekk sa wet pour comme ça dégg-dégg bu neex. waaw waaw waaw maa ngi koy fay maa ngi koy fay maa ngi koy fay waaw waaw maa ngi de. waaw naa ko fay waaw baax na ay ñoo ngi lay dégg na nga tudd ak fay wootee. voilà maa ngi tudd docteur Évariste Bassène nekk directeur régional élevage bu Saint-Louis. waaw aywa ñoo ngi lay déglu. voilà man maa ngi remercier euh, sama président. Euh, sama secrétaire général syndicat kay day vraiment di ko féliciter. di ko mhm. manifester samay respect di remercier féli remercier féliciter également les autres secrétaires généraux des de la pêche et de l'agriculture. Mhm. di rafetlu vraiment seen démarche yéen si defen aussi di leen di féliciter. jërëjëf voilà man lu ma mën a bu bu ma bëggoon wax par rapport ak euh, situation bi. Mhm. mooy euh, secteur agriculture pêche ak élevage dafa nekk ay secteur nga xam te ne dañu am doole. mooy si li ñuy wax sécurité sanitaire des aliments. ça veut dire que tey jii nii su Euh, day indi mun na indi jafe-jafe sur la santé de la population. Mhm. kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo def jungang boobu def mélange boobu manigance boobu pour situation bi mel ni ñoom ñoo nekk les seuls responsables de ce qui va se passer par la suite au niveau au niveau national. Mhm. gàtt mooy dafa am mafia bu nga xamante ne dafa am si gars yi bëgg a lekk xaalis xaalis boobu gars yi dañu ko bëgg a lekk. ah bon. voilà naa je vais donner mes raisons. oui. soo jëlee euh, nga engagement xam nga ñun suñu si dañuy ay budget soo demee da nga engagé un chèque da nga sécuriser ko dans un sous-compte. boobu boobu mu chèque boobu mënatul daanu si ay fonds libres. xam nga fonds libres mooy lu nga xamante ne jotoo ko engagé sa budget finalement mu daanu au niveau des fonds libres au niveau des finances waa finance c'est beaucoup. Mm-hmm. mais lii soo demee da nga ne da nga créé sous-compte dugal si le chèque kon bu chèque boobu kay mënatul daanu en fonds libres. Mm-hmm. ah après après après nga taxaw ne ne ñu yow loolu da ngay fay seulement que les contractuels. Ah, xanaa xanaa ñu soo jëlee élevage par exemple ñoom dañuy dañuy waxoon avant juste que Gada Diallo di génne kii bi que ñoom dañuy fay que les contracteurs xanaa un milliard deux cent gars soo ko soo ko divisé par soixante contracteurs gars yi chaque contracteur daa xanaa quatre vingt millions donc y' a vraiment un sérieux problème c' est pas sérieux donc fu mu nekk nii comment comment comment on dans un état normal ah le président de la République day joxe des instructions qui se lèvent ñu ne ñoom ñu ngi sur les instructions du président de la Ah, mhm. il faut qu'ils comprennent que ñun la grève là suñ ko tegee suñ ko tegee les jours à venir là képp ku lekk yàpp au Sénégal xam nga ne xam nga ne yow risque nga pour nga lekk yàpp yàpp euh, mbaamu xuux c'est des risques extrêmement élevés. Ah, <laughs> mbaamu xuux laa la wax. loolu moom garaaw la mbaamu xuux képp ku jënd yàpp fu mu nekk nii xam nga ne yow yaa ngi lekk mbaamu xuux au Sénégal te Sénégal c'est un musulman loolu c'est pas un souhait pour ñun mais ñi nga xamante ne ñoo nekk si kanam xam ñoom daal dañu bëgg a def peut-être que ñoom seen sarax la waaye on ne sommes pas complices de nos activités c'est un vol ça c'est un vol organisé il faut dire les choses clairement y a une tentative de vol bi nga xamante ne c'est une mafia bu fi nekk gars yi veulent voler les ressources là c'est la seule explication c'est seulement ça qu'il faut dire on est prêt nag on est prêt à tuer nag on est prêt à tout fu mu il faut qu'ils le comprennent on est prêt à toujours été très ils font le malin. On va les affronter physiquement. C'est ce que j'avais à dire. Merci. beaucoup, directeur de l'élevage, d'intervenir depuis Saint-Louis. C'est l'inspecteur, docteur docteur Bassine. Évariste Bassène. voilà daan ci dellu soit bon. Euh, dafa am lu ma bëggoon wax ci contracteurs yi. au niveau de l' élevage. dafa am benn. bon maa ngi lay seetaan tuuti naa dellu soit parce que. excuse-moi Omar. oui. gis nga foofu kero bi ma laajtee le nombre des contracteurs. Mmh. au niveau de l'élevage effectivement comme ni ko docteur Bassène waxee ils sont quatre vingt cinq. contre six cent trois. cinq. contracteurs contre six cent trois travailleurs d'une manière. d'accord loolu comme ni ko docteur Bassène waxee boo ko gëstoo ba gëstu ko bugguma joxuñ baaraam kenn quand mais dafa xaw a doy waar c'est bizarre. naka nga defee bis budgétiser dara ba war ko fay ay travail 603 travailleurs xëy bis ni léegi kat exclusivement 85 la ñuy fay kon xanaa effectivement ni mu ko waxee. ku ci ne di nga am ay millions 80 millions kañ na ko. 80 millions kañ wax na loolu laa bëggoon préciser effectivement ils sont 85 contracteurs contre 603 fonctionnaires et non fonctionnaires donc loolu nañ ko seetaat. nañ ko seetaat. ah moom kay il parle de mafia nee na ma loolu ah, mafia dafa doy waar man bëgguma dugg ci détails yooyu mais loolu moo am <laughs> loolu moo am bëgguma ci woon dugg parce que je respecte tout am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi allo. waaw salaamaaleykum. sëñ bi nga tudd waaw maa ngi tudd docteur Alioune Badara Kane Diouf. docteur Alioune Badara. Kane Diouf. waaw ñoo ngi lay dugg fooy wootee. waaw je suis le secrétaire général du syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal. waaw ñoo ngi lay déglu. waaw donc euh, dama bëggoon a dugg ci émission pour waxtaan ak yéen parce que boo mu gisee. da nga amee rajo sawet waaw xaaral ma. waaw fay ko benn yoon parce que mi ngi kii kii bi. voilà voilà au fait euh, li maa ngi rafetlu vraiment euh, ñi nga xamante ne tey teew nañ foofu muy secrétaire général yi teg yu teew foofu yëpp vraiment di représenter secteur primaire de l' administration sénégalaise. je mhm. pense que sama collègue léegi dugg na docteur Bassène wax na lu am solo par rapport ak. li nga xamante ne tey moom la secteur primaire di def au niveau euh, du Sénégal te le président de la République moom ci boppam reconnaître na ko parce que quand il faut dire que tey mën naa ne moom mooy nourrir le Sénégal mm-hmm. te ñu ngi def erreur bu rëy bu ñu bàyyi secteur primaire mu dem grève parce que tey contrôle yi nga xamante ne moom la gars yi di def au niveau national c'est des contrôles yoo xamante ne dafay permettre tey population bi yenn feebar yi nga xamante ne mën a ci yàpp bi wala mu jóge ci jën bi wala mu jóge ci Euh, mbiru agriculture yëpp vraiment ñoom ñooy nekk à l'avant-garde donc tey euh, dañu day secteur secteur la boo xamante ne mën naa ne dafay nourrir Sénégal. Mhm. te malheureusement dafa nekk secteur boo xam dañ ko laissé en rade depuis longtemps moo tax vraiment euh, su président jëlee ay initiative pour jéem accompagner ce secteur la ba tax xam nga ñu jël ay mesures internes moi je pense que waruñu quand même à ce niveau di def bassesse yi parce que man mënuma comprendre quand même. un circulaire nan la mën a vraiment taxawee di dindi un arrêté interministériel mais également di dindi un décret boo xamante ne tey mën naa ne euh, comme ni ko Mor Diouf waxee jaar na au niveau donc de l' assemblée nationale. donc je pense que tey nous sommes dans un pays de droit et lu mel nii su amee je pense que tey euh, mbir la moo xamante ne maanaam c' est or la loi te comme Bassène ni mu ko waxee euh, ministère des finances xam nañ leen donc tey lu si bëri tey sa passe au niveau du ministère des finances. donc tey euh, budget yi nga xamante ne déjà c'est voté su fekkee tey euh, ñi nga xam ne ñoo ko waroon consommer consommer wuñ ko mais dafay dem en fonds libre te su demee en fonds libre ñoom ñoo koy bénéficier muy ministère des finances et je pense que tey ñoom gënuñu méritant quand même ñi nga xamante ne ñoo fi nekk au niveau donc de ces secteurs moo tax vraiment mbir la moo xam ne dañ koy déplorer dañ koy déplorer bu baax te ñoo ngi demander vraiment que le voilà Euh, malheureusement bon mm -hmm. on a compris. waaw léegi rapidement ñu dellusiwaat. voilà xam nga problème contractuel yooyu. donc information yu ñu si am xam nga suñ ko daggee fonctionnaire yi te yi nañ ko dañ koy suñ demee ba ci kanam dañ koy daggal fonctionnaire yi c'est sûr te alors que ñoom sax dañoo demander à ce que ñu revoir donc lu ñu attribuer contractuel maanaam niveler ko par rapport ak dernière augmentation yi ça veut dire que contractuels yi lu ñu leen ñoom nee nañ ñoom ñoo koy continuer de recevoir mais dañ koy wàññi dañ koy wàññi ça veut dire que suñu wàññee loolu dañuy dem ba dagg donc su contractuels yi moo tax xeex bi euh, amul euh, fonctionnaire amul contractuel ñépp ñoo jàpp ci xeex bi tey parce que su dalee ti euh, tey tey kii ëllëg mun na mun na leen dal donc par rapport ak impact bu mu ko bu bu mu def grève bi tey élevage wax na ko ñun aussi au niveau de la pêche cent pour cent la cent pour cent donc la ñu suivre mot d'ordre bi à travers l'étendue du territoire national am na nañu remontée d'information yi au niveau nes ce pas des services centraux yu nekk fii Dakar xam nga donc ak aussi des services déconcentrés yoo xam ne léegi concrètement oui activité bi naka lay impacte si seen euh, waaw xam structure yi nga xam ne moo nekk fii décrire nu ko effectivement xam nga au niveau de la pêche oui euh, fu donc dañuy def contrôle produit halieutique yi. te contrôle produit halieutique yooyu. donc suñ nekkee def nañu pêche du jour donc déjà day am certificat donc euh, de première vente loolu suñ service ñoo koy délivrer. donc daa ngeen ko xool si jour bi même du pêche bu bees. non non donc xam nga suñu su su mool yi demee géej. loo xam ne surtout sax au niveau de l' aéroport la. ñu pêche du jour la maanaam dañ koy organiser dans le temps. ba nga xam ne donc suñ ko defee pêche du jour ak ba ba ñuy def bi. bu muy dem au niveau étranger. Mhm. loolu yëpp donc c' est dans le temps. soo xoolee suñu defee pêche du jour ñu délivrer leen certificat de première vente ñu am certificat de capture ba pare defal leen certificat donc euh, euh, sanitaire mais loolu yëpp suñu banqué suñu loxo ça veut dire que engagement yu acteurs yi jël au niveau étranger seen produit yooyu du mun a génn. kooku c'est l'exportation kooku c'est l'exportation même au niveau de l'importation aussi xam nga su jën di dugg aussi dañ koy dañ koy dañ koy saytu. Mhm. xam nga def ay inspection xool ndax jën bi ñuy dugg fii donc euh, amul benn amul benn problème loolu yëpp aussi donc agent yi koy def dañ koy arrêté tey xam nga au niveau aussi nest pas des informations statistiques fu ne ni donc état bi chaque semaine dañ koy jox ay informations statistiques par rapport ak ak euh, donc produit exportation ak importation loolu daal da dañ ko bloqué donc loolu yëpp ay impact la yoo xam ne ne wax dëgg fa la dina dina dina dina dina dina jur donc euh, euh, maanaam loo xam ne du jéggi dayo ay milliards su nekkee état bi nag dafa bëgg privé le secteur primaire loo xam ne moins de cinq milliards la annuel au profit n'est-ce pas des des des des des des des centaines de de de de milliards parce que ñun suñu xeex bi duñ ko bàyyi tant ko réglé wuñu suñu problème bi nii su nekkee donc état bi nangu na loolu par rapport muy perte ces milliards là au profit de moins de cinq milliards annuels du secteur primaire nañ si dem. nañ ci mais loolu donc comme ni nga calculer c'était nii cinq milliards et cetera état bi di ko perte ak euh, xam nga euh, une somme dérisoire mais est-ce que loolu yelu na maanaa non mais xam nga xam quand xanaa du dem sacrifier xaalisam comme ça pour toq xaalis bu mu waroon jox ay nit. mais mais mais loolu la nekk di def nii. waaw mais waaw pour pour quelle raison alors. non xam nga kii intérêt bi si am. non xam nga xam nga mooy lu ñu wax rek camarade lu ñu wax rek mooy dañoo fulalul donc le secteur primaire parce que suñ ko fulaloon du ñu bàyyi sax ñuy dem grève parce que lii yëg nañ ko l' état est au courant parce que mënuñoo wax ne certes donc ñu ngi def ay passation de service mais le premier ministre. donc il doit prendre ce problème à bras le corps il est déjà nommé premier ministre mais warul xaar sax donc ba euh, euh, problème bi di am muy muy muy def ay impact il doit prendre ce problème au bras le corps woo donc euh, les responsables ñu toog ñu wax qu'est-ce qui se passe ils sont ils au courant loolu wax dëgg fa yàlla duñ ko nangu parce que lii yabel la yabel la dañ ñoo dañ ñoo manque de respect te alors que président de la république non dañuy constater président day joxe ay décision à chaque fois jëwriñ yi duñ ko appliquer. ah mais ça, ça, ça si c'est comme ça c'est grave. non mais c'est très grave. Ah, et le président doit prendre des mesures par rapport à cette situation donc président dafa war a jël mesure parce que moom moo toog wax ko ne donc secteur primaire moo gën a am solo ci économie réew mi dañ leen war a dooleel dañ leen war a. revaloriser ba am décret. mais bien sûr élevage am nañu. décret waaw mais kii ñii li ñu def mais du fekkee ni loolu bon yéen war ngeen mën a attaquer ministre bi li nga xam ne moom la def. du point de vue juridique mais bien sûr bien sûr mais loolu si xeex bi la bokk mais dañ koy attaquer parce que Abdoulaye Daouda Daouda Daouda Diallo daf ñu xañ jàmm moom du am jàmm daf ñu xañ jàmm ñun ak suñuy njaboot Abdoulaye da Diallo du am jàmm. bon pour si pêche bi moom posé wàllu benn question bala mooy dem si. waaw euh, Mor Diouf temps yii déggoon si. Euh, defe naa ban zone boo xam ne amoon na ay jën defe naa côté kii la laa euh, Kayar. Mhm. amoon na ay jën yoo xam ne dañ leen gis en masse nu dee nii ba gaa gaañ di accusé mhm. usine de farine bi nekk Kayar di wax ay lu muy déversé ay tokk ak yooyu si euh, géej gi moom moo tax ay jën yi dee est-ce que yéen ñi ngeen xam ni da ngeen di xool jën yi seen. ni nu mel ak yu demee nag yooyu am ngeen lu ngeen si wax si fànn boobu. non xam nga xam nga par rapport ak sa question boobu xam nga au niveau nest pas euh, du ministère euh, dafa am ñoo xam ne dañu habilité pour apporter des réponses par rapport ak sa question boobu man donc euh, donc man je suis un manager dans le ministère mais je pas un technicien donc. oui waaw donc man je un manager. je suis pas un technicien voilà. donc moo tax sa question boobu noonu je pense que duma ma si mun a apporter euh, euh réponse mm-hmm. mais les techniciens qui sont habilités à apporter des réponses à ça je pense que donc après mun nañu la mettre en contact avec ñoom nga interroger leen par rapport à cette situation la voilà d'accord merci beaucoup ma ñëw si euh, Mor Diouf Mor Diouf pour dellusiwaat un peu si li nga xam ni allo defe naa am na ku nekk si ligne bi allo. maaleykum salaam nga baal ñu mbokk mi euh, tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Alpha Diallo wootee France. Alpha Diallo ñu ngi lay déglu. Alpha Diallo Diallo Alpha Alpha Diallo bon d'accord mbaal sunu Alpha Diallo di. <laughs> waaw moom la kay. aywa Alpha na nga def mbaa yaa ngi si jàmm. sant yàlla maa ngi nuyu ak sa ñi nga invité si plateau bi. waaw ñoo ngi du ma yàgg nag je bref dama bëggoon am lu ndaw rek lu ma contribuer. Mm-hmm. et vraiment boo déggee li ñuy wax nga xam ne la situation est critique. Mm-hmm. parce que secteur bi ñu yor est tellement important. bu fekkee ne da ngay négliger nit ñi ciy liggéey mënoo am li nga xam ne moom nga bëgg ci résultat mm-hmm. parce que comme ni ma amee habitude de dire parce que une société boo bëggee mu dox une société comme entreprise da ngay investir ci ñaar la personne et le matériel mm-hmm. mais problème boobu la suñu dirigeant yi di def défaut boo déggee léegi problème mu prime yi ñuy wax ni euh, daanaka da nga daan dégg ancien ministre bi Moussa Baldé daan na wax ne ñoom moor li ñuy kaas noonu yokkute boobu mënuñ leen ko yokkal nii rek ndax buñ ko yokkalee kenn foog ñëpp tamit jot si ndax ay fonctionnaire lañ mhm. te boo déggee li nga wax da gis ne ni ñëpp yokkal nañ leen waaye ñoomit jotuñu si ci côté décret bi décret moom bu fekkee république normal buy dox comme bu Sénégal loi loi moo koy dindi décret décret moo koy dindi décret boobu ab circulaire mënu ko dindi ci hiérarchisation des des des des lois et règlements au Sénégal constitution mm-hmm. moo nekk ci kaw loi topp ci décret topp ci arrêté topp ci après circulaire door a ñëw xoolal circulaire nekkul sax si wetu décret circulaire mm-hmm. mënulul dara décret képp ku ko def viole complètement la loi donc léegi nag concernant élevage man je m'attriste souvent su ma leen di dégg parce que su ma juumul seen budget trente milliards la waaw ah, moom le budget bu mu faible la woon moom voilà budget bi trente mille trente milliards la agriculture cent quatre-vingt-trois milliards. mais bu fekkee ne da nga yor ay dëkk yoo xam ne da nga bëgg mu def émergence agriculture élevage bu ñu mënul ànd ñoom ñaar seen xaalis daa war a méngoo lu tax parce que kii déchet wu kii maanaam déchet wu agriculture mooy dundal élevage déchet wu élevage mooy tax agriculture am engrais xaw ma ndax comprendre nga. oui oui. voilà léegi nag kon donc ñoom ñaar il faut que ci ñu bokk maanaam traitement légal bi mu leen mën a traité bu fekkee ci wàllu fonction euh, employé public la ñuy doon mooy comme ay fonctionnaire il faut que kii bu amee changement kii mën a am changement léegi tey jii ñoom action yu ñu wax nii dañ koy def nii bu ñu ko defee tey jii y un problème y aura un blocage est-ce que dañuy yegg ba foofu maa ngi dégg benn waaye si ñoom mu ngi insister ñaari yoon ne jaral nañu ñu dee j'espère que duñu yegg foofu voilà léegi nag concernant Covid bi bi Covid bi ñëwee dégg nga ñu doon wax ne def nañ fi sax un conseil présidentiel sur la relance économique président bi ne il faut que ñu réorganiser suñu système d' approvisionnement jéem a xool ci biir dëkk bi nan la ñuy dundalee suñu bopp naka nga mën a réussir loolu ak problème yu mel nii mënul nekk problème Ukraine bi ñëwaat ñu demaat ba foofu di régler waat ay problèmes yu ñuy dundal yu war a dundal Afrique kon toujours nous sommes dans ces problématiques yooyu noonu mënuñu ci génn. tant que réglé woo le le problème de fond comme ñii nga xam ne nii moom la ñuy dund léegi nii gis nga ministre de ministère de l' agriculture dolli nañ ci ne ministère de l' agriculture de l' équipement de la souveraineté alimentaire. Mm-hmm. mais la charité bien ordonnée commence par soi il faut que déjà que ñii seen problème ñu mën ko régler avant que ñuy dem à la souveraineté alimentaire loolu rek laa ci bëggoon. jërëjëf merci beaucoup Alpha Diallo. ok voilà. moom benn kii la quoi li participe des fois si sunu ay débat également dafay liggéey si côté arachide huile ak yu demee noonu yooyu quoi bon léegi ma si moo Diouf Mor juuf également itam rapidement yéen dañu bëgg nga wax ne ak secteurs yi nga xam ni seen grève bi tey jii foofu la war a impacté ak ak lu mu mën itam jur comme dégâts voilà merci beaucoup si phase boobu la nekk ñu ngi nuyu di rafetlu intervention ñu dugg ñëpp particulièrement Alpha Diallo mu def intervention bu pertinente Mhm. parce que gero <laughs> Ukraine bi ñëpp gis nañ ko Covid bi ñëpp gis nañ ko à chaque fois boo seetee bu économie bi amee problème les gens font recours. à au secteur primaire. Mhm. waaw foofu la ñuy wax ni foofu la ñu war a sukkandiku pour régler problème yi. Mhm. mais secteur yooyu nag malheureusement fulaaluñu leen euh, la question de droit bi nga xamante ne dañ koy xool muy les contractuels gis nga tey au Sénégal dañu ni. képp ku fi juddoo ngay góor wala ngay jigéen am nga droit am carte d'identité mm-hmm. est-ce que kenn mun na toog ba mu yàgg ministre mu ni léegi jigéen ñi moom ku fi juddoo nekk jigéen doom carte d'identité mm-hmm. noonu la demee c'est-à-dire là où le législateur ne distingue pas la loi ne distingue pas yow en tant que autorité administrative mënoo distingue dans les documents que nous avons muy l'arrêté aussi bien l'arrêté que le décret on a dit tous les travailleurs de l' agriculture. képp ku fay liggéey est ce que xam nga ni gendarme bi nga xamante ne dañ ko affecté sax foofu. day am ci indemnité bi. au nom de quoi léegi un ministre mën a toog fële. daal di substitué wu ci ci ci arrêté ak ci décret yi daal di non j'exclus maintenant cette catégorie de travailleurs loolu fondamentalement comme nu nga ko waxee si on est dans un pays de droit kenn du ko xalaat sax ba di ko jëf ba naan dañ koy attaqué au niveau des juridictions compétentes maintenant pour impact bi. damay préciser à à à l'attention de ki doon wax sànq ni ñun jubluwuñ ci eh, eh, eh, salfaañe wala yàq économie sénégalaise wala ñu am problème travail euh, comment dirais-je population yi am jafe-jafe mais sànq wax naa ko Walfadjri képp ku nekk euh, euh, ci fi ngay liggéeye boo amee problème loolu nga mën a téye mm-hmm. les enseignants li ñu yor lu am solo la muy jàng xale yi mm-hmm. mais bu ñu amee jafe-jafe loolu la ñuy téye. Mhm. parce que loolu lañ mën a téye ñun mënuñu téye fi ñu doon. njàngale mooy seen xeexukaay daal waaw mooy suñu xeexukaay malheureusement nag dina am ay ay ay ay ay dégâts collatéraux euh, on s'en excuse bëggewuñ ko noonu mais noonu la mën a demee maintenant impact yi. buñ ko doon lim defe naa ne émission bi yëpp la ñuy jël dañuy tënk. non dañuy waaw boo jëlee lu mel ni. Euh, euh sécurité des visible. sécurité des aliments <laughs> tey boo ñëwee direction des direction de la protection des végétaux bépp euh, produit. mais DPV ñoom bokk nañ ci affaire bokk nañ ci bokk parce que c' est des travailleurs du ministère de que seen côté dafa sensible et puis. waaw dafa des des des des produits végétaux buy génn wala muy dugg dañ lay jox euh, certificat phytosanitaire. pour wane lii baax na donc loolu dañ ko téye booy importe tey ay semences wala ay intrants aussi dafa am permis d'importation loolu téye nañ ko. ah téye ngeen permis way oui. permis euh, ñan ñoo koy joxe. Euh, ñun ñoo koy joxe. au ah la voilà boo bëggee exporter. boo bëggee ah. importer ay intrants ay semences comprendre nga. Mhm. tey la protection des végétaux. sànq yaa ngi doon tudd fii ay njéeréer rek ay loolu. Ah, waaw mais kan moo yore les unités de traitement. DPV moo ko yor loolu dañ koy téye comprendre nga boo jëlee l'encadrement boo demee au niveau de la DPV dafa am ay étudiants yoo xamante ne tey dañ fay def seen mémoire ñu leen di encadrer ñun am nañ ay centre de formation toujours ci volet volet formation agricole mais centre yooyu dañu war a def ay examen de sortie ak ay examen d'entrée mais yooyu yëpp tey dañ ko boycotter. boo jëlee les statistiques agricoles yi nga xamante ne tey ci la état bi sukkandiku pour élaborer ay politique agricole pour tamit xayma li nga xamante ni tey ren jii dañ ko bay ba Moussa Baldé doon wax ni dañ am 4 million de tonnes xayma boobu kan moo koy def pour wax ni lii 4 millions la wala 3 millions la statistique agricole yi loolu tey dañ ko bloqué Sénégal dafa jël ay engagement au niveau des institutions internationales yoo xamante ni tey dafa am ay indicateurs yoo xamante ni tey dañ ko war a renseigner à travers ces statistiques là. au niveau de la sous au niveau de la sous-région oh, voilà yooyu yëpp tey mais état bi sànq ñu ngi doon wax le manque à gagner appui budgétaire yi nga xamante ni c'est c'est des appuis euh, conditionnels parce que tey euh, euh, dañ ko assujettir à. Euh, un certain nombre de critères yoo xamante ne da nga ko war a remplir notamment euh, le renseignement de quelques indicateurs tey indicateurs yooyu dañ ko bëgg te l'impact ñoom commencé nañ ko dund parce que laa jël au niveau des finances tey ñi nga xamante dañu war a euh, ak suñuy travailleurs ñu leen di jox yenn données yi données yooyu yëpp tey téye nañ ko donc les impacts commencé na boo jëlee le courrier du ministère tey mais dafa taxaw boo demee tout ce qui est planification au niveau du ministère la jëlal la loi de finance agro-sylvo-pastorale xam ni tey lépp lu jëm ci mbay sàmm ak napp ñu ngi ko tëgg ci loi boobu mu war a jeex 2024 bii ñu war ko def évaluation pour war a joxewaat ay orientation loolu tey direction yi nekk agriculture ñoo ko porté les députés son interpellés parce que loi boobu tey dañ ko war a évaluer ba pare euh, euh, euh, réformer ko jàll ci leneen loolu day bloqué donc impact yi munoo nekk fii di ko xayma boo jëlee les semence tey ñu ngi ci contrôle des des parcelles pour semence de multiplication yi tey loolu bu ñu ko toppee déwén ñun on garantit pas une semence certifiée au producteurs donc les impacts sont énormes son nombreux et que vraiment euh, malheureusement euh, si l'État ne ne ne ne réagit pas vraiment à en corrigeant cette injustice la Euh, on va euh, droit vers le mur te te loolu defe naa ni warut a nekk maintenant quelqu'un a parlé d'interlocuteur l'État c'est la continuité de l'État comme ni mu ko waxee tey les les les l'État fonctionne ce n'est pas parce que on va mettre en place un nouveau gouvernement que l'État s'est arrêté non euh, Abdoulaye Daouda Diallo bi muy jël mesure bi il l'a pris en toute connaissance de cause du contexte donc il aurait dû se que je suis, on est dans un contexte boo xamante d'autant plus que le président la avait donné instruction à ce que certaines mesures ne puissent pas être prises par euh, euh, euh, les les les yi nga xamante ne dañ leen demandé woon ñu takk seen seen seen seen seen i dëbës donc impact yi tey dafay dafay dafay dramatique parce que boo demee ba mu am une jonction entre le ministre de l'agriculture le ministère de l'élevage et le ministère de la pêche xam nga ni les impacts ne peuvent que être que dévastateurs donc ñun li ñu bëgg mooy euh, xëy na sax mënuñu toog fii di dévoiler tous les impacts parce que ils sont énormes mënoo ko citer lépp da ngay joxe rek yi nga xamante ni moo nekk faar nit ñi xam ni. vraiment on court un, un risque énorme par rapport à à, à l'économie sénégalaise donc ñu jox ñu li nga xamante ni dañu ko moom parce que ñun tey euh, y a le volet euh, peut-être juridique mais mais mais mais mais y côté sociale également c'est-à-dire que tey. comment vous pouvez imaginer Dramé bi nga xamante ni dafa jot indemnité am mu dem au niveau din institution bancaire mu ni day eh, dafa bëgg a contracter un crédit institution euh, euh, bancaire boobu wala financière boobu ni ko indil ma attestation de revenu complémentaire mooy wane ni l'État du Sénégal s'engage à travers ce document pour jox la ay revenus yoo xamante ne dafa yokku ci sa salaire. Hmm. et sur la base de ce document l' institution euh, financière vous accorde un crédit. Hmm. sur cinq ans. Hmm. en moins de sept mois l' état veut se rétracter pour dire que moi désormais je ne donne plus cette ce revenu là. mais on est dans un état sérieux quand même. c'est-à-dire loolu nan lañ ko mën a defee et puis Abdoulaye Daouda Diallo quand même il gère le ministère il connaît ces rouages là ñun bu ñu ko mënee xam moom. xam na ko waaw mais Abdoulaye Daouda Diallo moo nekkoon foofu moom moo koy jël décision bi d' accord. Hmm. mais y' a le président. waaw y' a Abdoulaye Diallo c'est le ministre mais mënul def loo xam ne tam président bi àndu si. non ñun ñun on regrette. chaque fois euh, au Sénégal comme ni mu la ko waxee le président de la République donne des instructions nit ñi duñ ko def wala niñ koy. defee d'accord naa mais du ko du ko du ko. en fait man mais mais kii. président wax nga sànq waxoon na leen lu wóor mu leen am na loo xam ni du ma ko laal. waaw. waaye am na loo xam ni mën nañ ko toppatoo en interne. waaw mu régler loolu. waaw waaw léegi du président waxee loolu ba pare. keneen jóge fee ñëw dindi ko keneen sax warul woon xalaat dindi ko ndax président moo ko wax normalement. waaw looloo ñu jaaxal. ah voilà maintenant ñun mënuñu wax ni. président loolu tax man man loolu tax man la waaw xanaa président boobu moo ko sant mu dindi ko. ah ah ndax Abdoulaye kat jëmewul wër dindi. loo xam ne président man ça ça m'étonnerait que président de la république sant ko ko. ah pourquoi. parce que xam nga lu tax man dama jàpp ni président de la république moom moo toog kenn seexalu ko lem kenn soxalu ko suukar mu ni secteur primaire. la wax ni agriculture pêche élevage euh, salaire yi ñu yor salaire yu misérable te dañ leen a war a euh, jox seen gëdd jox leen seen cër joxe ay instructions. mais ñëpp xam nañ ni président la République bu doon instruction yi muy joxe yëpp defe nañ ko ni mu ko waxee wala ni mu ko bëggee kon réew mi ñaxtu yi nga fiy dégg yëpp xëy na du demee nii. bon yow da nga bëgg wax ni que président dafay wax def leen lii gaañ def leneen. waaw ñun loolu lañ gëm. ah waa mais kooku xanaa bon président amatuñu président. ah noo jàpp nañ ni xëy na. bokk na ah, ci bokk na ah, ci ah, ñun bokk nañ ci gëm nañ ni ñàkk a def li li président bëgg. wàcc yoon moo tax ñu jëlee ko foofu ñun gëm nañ loolu. kooku nag Abdoulaye Daouda waaw jë ñun gëm nañ loolu. ah gars yi naan dañ dañ koy gën yéegee yow nga est ñu jëlee ko. foofu waaw bu dee dañ koy yéegee en tout cas euh, bu dee dañ koy. yéegee l' essentiel ñun li ñu gëm mooy mesure bi. Mhm. moom entité personnelle moom moo ko jël en tant que ministre des finance jusqu'à preuve du contraire ñun dañuy gëm ni moom mooy endosser toute la responsabilité. oui te li ngeen di wax ni président yëg na xam nga. waaw président yëg na ko def ngeen point de presse ak yooyu yëpp. tout ça waaw waaw moo tax dañoo gëm ni. pourquoi le président ne réagit pas ñun gëm nañ ni il n'est pas trop tard gëm nañ ni le président de la république va réagir gëm nañ ni également le premier ministre. qui coordonne l'activité gouvernementale va réagir. Ah, oui, Nous croyons également que le ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances aussi par rapport aux échos que de lui, que vraiment c'est un manager boo xamante ni il est contre l'injustice moom dina réagir pour rétablir injustice bi nga xamante ni am na. Donc ñun li ñu gëm mooy ni il peut y arriver que dans un état ñu jël ay mesures parce que euh, le doyen Carré rappelé na ko. C'est Ablaï Daouda Diallo qui avait tenu un point de presse pour dire que euh, les négociations qui ont découlé à, à, au protocole d'accord avec les les enseignants, c'était des montants qu'on devrait imposer, n'est-ce pas? moo ko waxoon. Mais mhm. on a vu que quand les les les les les les les enseignants ont réagi et de la façon la plus euh, comment dire rigoureuse, il est revenu à de meilleurs sentiment donc des instructions. donc affaire daal rapport de force la. voilà bon en ñun nag bëgguñu réew mi di doxee noonu. xam nga réew mi dañ ko noonu de enseignant yaa nii. waaw xam na leen seen combativité sur le terrain politique. mais loolu tax ñu am ko. du moom mais c'est dommage. waaw yéen a ngeen naan toog nii. du ngeen noonu non non waaw boo leen yéen bëgg leen. non tooguñu looy na la en ah. en fait en fait xam nga c'est clair. bëgg leen defee noonu. non en fait dama ni kenn waru ko yore ci loolu. Hmm. waaw réew kenn du ko yor ci maanaam kii am na force de frappe réew dañ ko war a teg ci yoon. Hmm. waaw est-ce que da nga teg ci yoon seen effectivement moo toog fii moo tax nga toog toog fii wax. effectivement waaw ah, voilà. effectivement dañu ñun suñu sañoon liñ lay waxuñu la duñu xeex parce que xeex moo ñu indi fii hmm. xeex moo taxoon jox ñu indemnité boobu. xeex tamit mooy tax dinañ ñu ko delloo waaye dañu ni réew kenn du ko yore noonu. maanaam dooni kii mën naa euh, am na doole. du ma koy respecté kii xëy na jàpp nga ne amoo amul doole du ma ko respecté. mais bu dee nag ñoom loolu lañ gëm. ah ñun dina leen wan ni am nañ doole malheureusement nag population yi nga xamante ni ñoom seen yoon nekku ci ñoom la mbir mi di dal seen kaw loolu moo ci regrettable. bon voilà. Euh, loolu mooy kii bi dañu tour de table donc je ma dellu soit si euh, Karim mbokki auditeurs ma leen fàttali yéen ngeen topp seen émission waar wi tey jii ñoo ngi waxtaan si affaire intersyndicale agriculture élevage pêche ak grève bi nga xam décrété nañ ko 72 heures er, agriculture moom commencé woon na d'ailleurs euh, depuis démb pour ñu delloo leen seen indemnité yi nga xam ni daaw di Diallo moom la dindi te ñu tàmbale woon ko di fay depuis janvier. ñoom nag xamuñu loolu lan moo tax parce que nekk loo xam ne waxtaan nañ ko wala xamal na leen ko ak yu demee noonu yooyu léegi ba tey ñoo ngi desee ay toq mi rek ba tey waaye ku bëggee intervenir mën na continuer nu ñëw rapidement del soit si secrétaire général bu intersyndical bu élevage Amadou Karé voilà ce dernier mot parce que man de li ma ciy wax mooy autorité nañu xoolaat seen bopp c'est vrai président nekku fi nee nañ samedi lay ñibbisi mais nañu xoolaat seen bopp. te je sais que à la présidence ñu ñuy déglu te bu ñëwee dinañ ko rendre compte li nga xam ne nag bëgg naa ko wax mooy détermination bi ma gis ci travail wallahi mosuma ko gis. j'ai fait 37 ans de service. lii détermination bi ak li nga dégg ñoom docteur Bassène wax ko mosuma ko gis. les gens sont fortement engagé tey jii moo tax sànq ma wax sax ba tudd affaire Fatou. dama ko waxee noonu rek pour kii. mais fi mu ne ni nit ñi lu ëpp loolu sax jaral na la parce que nit ki boo ko bëggee toroxal ku jàng ba am bac plus 6 bac plus 7 des fois day am sax problème mu euh, courant kooku boo ko bëggee toroxal du ko nangu nañu seetaat mbir mi travailleurs ne ci àll bi que sa soit à l'agriculture à l'élevage pêche dañ leen seetaat defal leen parce que comme ni ko kii waxee souvent les autorités du ministère des finances dañuy xool di saafara problème yi à la tête du client ci violence yi nga xam ni yenn syndicat ñu ngi koy indi moo tax xam naa ne mu waxee noonu mais ñun nag fii cette fois si ci ñu ci dara dara dara dara nañ jox suñu yëf wala on ira jusqu'au bout parce que fi mu ne nii conséquence yi moom comme ni nga ko waxe mënuñ ci tudd lim yëpp mais buñ ko limoon sax population yi mën na am ñu génn yuuxu parce que ce sera vraiment dramatique que ça soit pêche élevage agriculture boo demoon port aéroport ñoom ñëpp ñu nga fa benn kii lañ leen defal. démb rek maa ngi ci waxtaan ak inspecteur u aéroport dañu am benn genre. guichet unique waaw bloc mm. ñoom ñëpp ñu nga fa ñëpp nga fa. Mm-hmm. nañ seetaan affaire yi ah. gars yi bañu ci dara de. d' accord mm. léegi ma dellusiwaat si Oumar Dramé. waaw waaw waaw Matar donc soo soo gisee camarade Mor. muy wax ne yéen xanaa ñun tam ñun jën gisatuñ ko ba pare nag ngeen bëgg nit ñi bëgg ñu xañati jën <laughs> man démb rek maa ngi toog jox man ceebu jën dama ko namm parce que li ma lekk depuis xaw ma ñaat at ak nii nekkatul ceebu jën waaw mais xam nga loolu ak si bëgg daajaat fu ñu jëm nag xam nga loolu yëpp benn instant soo soo soo soo mettre les agents dans les conditions duñ mun a def donc euh, seen seen seen seen seen liggéey parce que dañuy mot dañuy démotiver donc loolu yëpp ça revient lu ñuy xeex nii moo tax donc wax dëgg fa yàlla agent yi dañ leen war a jox cër mettre leen dans de bonnes conditions ñu mun a def seen seen liggéey comme euh, convenablement su ma ñëwee si Mor lu mu wax par rapport ak décision yu yenn ministre yi di jël te président yëgu ko mais la preuve Abdoulaye Daouda Diallo yàggul am na benn décision bu bu jëloon pour euh, donc euh, par rapport ak domaine foncier yi côté universitaire mais loolu loolu loolu ba mu demee ba coow li bëri. mais président moo wax moo moo moo moo joxe instruction pour ñu dàqal ko. oui ah voilà moo tax. loolu man président doon na maanaam defoon. bu mais effectivement moo tax je me dis que effectivement yenn décision yi man xam naa ne ne président yëgu ko. waaw mais nag xanaa amatul bon président. foofu non mais si si yaa yaa ngi wax président ngi wax ñëpp a wax. waaw vraiment généraux ñoo mais ñoom ñoo ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a jàppale président def lu leen war. Ah. di suivre les instructions di koy exécuter. c'est ça la vérité waaye président yëg na. la vérité léegi nag. ñun rapidement ñun wax dëgg fa yàlla donc euh, tàmbale nañu tey. donc euh, élevage agriculture rejoindre euh, agriculture bu tàmbale démb weekend bi dinañ évaluer. par rapport donc ak plan d'action yu ñu def yëpp su nekkee nag état bi d'ici d'ici boobu état bi réagirul ñun duñu dakkal suñ mouvement donc de grève bi dinañu dàbbaliwaat te loolu donc dinañ ko wax à partir donc voilà suñu évaluation bu ñuy def parce que nag wax dëgg fa yàlla trop c'est trop voilà merci ma del soit si dernier euh, kii bi tur muy euh, Mor Diouf voilà secrétaire général bu euh, syndicat agriculture looy tëje bokk waaw man li may tëje c'est simple di lancer un appel solennel à l'endroit des autorités qui viennent d'être vraiment nouvellement installées muy en l'occurrence le premier ministre. Mhm. Euh, di comment il s'appelle encore euh, Amadou baax mhm. ak le nouveau ministre des finances. yéen sax ngeen indil ko xew. waaw effectivement non que dossier bi dossier la boo ni qu'il faut prendre au sérieux mhm. a taxaw. ah c'est le secteur primaire. voilà c'est le secteur primaire te ñoom ci lañ yaakaar. moo amee moo amee biir yi nit ñi. lépp mën nañu wax moo bu doxee réew dox bu bu taxawee réew réew taxaw. normalement le nouveau ministre des finances il s'appelle. Euh, Mouhamadou Moustapha Ba hmm. aussi ñu ngi koy lancer un appel solennel les les ministres des pêche élevage agriculture ñoom ñi nga xamante ni ils sont impactés directement et que certains ñu bees lañ muy Aly Ngouille Ndiaye ak Pape Sagna ñu ngi leen di ñaan di leen lancer un appel solennel pour que semaine bii comme ñun euh, euh, nekk nañ ci mouvement de grève te gis nañ impact yi tey parce que la grève a été suivie à cent pour cent je dirais même deux cent pour cent à l'agriculture donc dañ leen di ñaan un app di lancer un appel solennel pour que ñu woote le plus rapidement possible euh, des négociations sérieuses pour que euh, problème bi ñu régler ko définitivement parce que waxoon naa ko la question des indemnités internes doit être doit être derrière nous ñu jàll ci leneen leneen li mooy lan ñu xool ni ñun on mérite des indemnités de risques parce que l'indemnité de logement aussi dañ ko war a am amuñ ko euh, euh, la question la question également des contractuels yi nga xamante ne dañ leen war a régulariser mhm. c'est-à-dire que loolu mooy les questions fondamentales mhm. yi nga xamante ne tey si on veut que le secteur primaire aille de l'avant on doit les résoudre mais waruñu nekk fii di remettre en cause des acquis syndicaux mhm. parce que jamais dans l'histoire administrative dit Sénégal, un acquis n'a jamais été remis en cause. Ce n'est pas, quand même, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le démarrer ou qu'ils vont le, l'expérimenter euh, avec le secteur primaire. On ne l'acceptera pas et on se laissera pas faire. Et la détermination et l'engagement aussi, travailler d'un ko am. du Duñu delu ginaaw li kayre kare wax deug la mhm. parce que Euh, boo seetloo ci histoire syndicalu euh, secteur primaire jamais mosoo gis jonction bi am ñu defandoo di xàccandoo di dóorandoo parce que ñoo bokk feebar benn garab la ñuy jël te incha allah autorités yi bees yi defe naa ne par rapport ak mission yi leen di xaar ak par rapport ak contexte mondial bi nga xamante ni tey mooy prévaloir au niveau di Sénégal ak au niveau euh, di monde defe naa ni dinañ jël sa problème à bras le corps pour résoudre ko di sant. di la gërëm ci invitation bi. Mm. di sant également tous les travailleurs du secteur primaire. Mm. di leen wax ñu gën a taxaw gën a engagé wu di xaar la mot d'ordre bi nga xamante ne nañ ko waat à la suite de l'évaluation qu'on fera durant le week-end. ñoo ngi leen di gërëm yéen ñi ngeen xam ne toggoon ngeen fii yëpp intersyndical bi pour expliquer population bi li nga xam ni moo waral seen euh, ñetti fanu grève yi ngeen def ak tam li leen métti def naa yi leen doon déglu yëpp comprendre nañu li ngeen wax ñuy remercier donc sunu ay auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi nekkoon euh, di déglu ak ñi nga xam ne également participé nañu woote nañu ci émission bi pour. Euh, gën ñu joxe leeral si li nga xam ni mooy mbir mi ñoom ñëpp def naa déglu na leen gën na leertam tam si bopp nit ñi suñu technicien Alassane Wade la woon Mokhtar Sall moo leen doon présenté seen émission waar wi di leen jox beneen rendez-vous àllarba incha allah jërëjëf. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay. càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñoo leen doon may seen émission waar wi